be worry no matter what it's at. Fly higher. Fly higher. No matter what it's at. Fly higher. Fly higher. No matter what it's at. King of Yaga ever done must I'm limit, yo. Daf ko yaga gamte, I'm not married, yo. Kinda i am condition, i am my boy. Listen one papa guy, then you give a in Danga yaga tanga dog, subanga Manga subanga yai number one. take a success, mungi nyao, mungi nyao. to bed, they be not boom yai number one. No time for regret, life is a real girl it and leave me. No time for worry, no matter what is at. Fly higher, fly higher, no matter what is at. Fly higher, fly higher. Hey boy. veux être plus célèbre que Michael Jackson Ton nom retentisse plus fort qu'un klaxon Aller plus vite que Bob, plus haut que Jordan Pour le rap pop, y'a le monotone Être au sommet du monde sans avoir le vertige Plus à l'aise qu'Obama, c'est pas toi mais Dieu qui dirige Tu vas les dribbler mieux que Pelé Laisse-les, bla bla bla bla bla Just walking inside Never let down Wake up your mind Never sit down Express yourself. Don't be lazy, so move on yourself. I ain't think about yourself. I want to feel the rest. I am no time for regret. Life is a regret. Sky is the limit. No time for worry, no matter what is at. Fly higher, fly higher, no matter what is at. is I'll be fly higher. All right. All right. <laughs> yeah. Yeah, yeah, Say your uh, Yeah, uh. yeah, yeah, yeah. Hey, freedom. Yeah. Dans les musiques de que moi, freedom mooy rhythm music, the good mooy rhythm yeah. and yeah you know we got the best rhythm uh-huh we got that feeling in your chest rhythm all right <laughs> yeah yeah i tell you why i really wanna dance i wanna dance it ain't the beat that's bumping in the music yeah. but i like the beat that's bumping in the music yeah. but that ain't the reason i wanna dance I really think I got a second chance. A second chance. They brought me back so I can yeah, do this music. Yeah, yeah, so every track I'm on, I'm gonna abuse it. Yeah, And now I'm about to run me up some banks. Why won't you bang me? out that rhythm of the drum. Rhythm How about you bang me out that rhythm of the drum? Rhythm How about you bang me out that rhythm of the drum? And if it ain't no music, there's no life at all. No, that music take control of me, control of me. My rapping while of oh, how bold of me, bold of me. Eskimo bro, ain't no one cold as me. It ain't no mother you folding me. They count. Blah, blah. sucker my rhythm. Yeah, yeah, and yeah, you know we got the best rhythm. We got that feeling in your chest rhythm. Hey rhythm, dans les musiques de my rhythm. Uh, and yeah, you know we got the best rhythm. Uh, yeah, we got that feeling in your chest rhythm. Yeah. nit ku ne fi nga jóge ngay sagoo na nga fexe ba lay def di sa sagoo musique bi ma yëg ci suma dereet munoo ko gëmloo ricain bi si guleer tamit boole nañu ufandoo ñu bokk ni ñu koy yëggandoo ñu nag fi ñuy juddoo ndoo mën nañu bokk ni ñu koy defandoo naam rythme guitare ak timik cokki cokki ci beat bi dañu bi wane doole rek dribble beat bi da ngay réer ba mujj daw ñibbi soo am rythme te amoo dégg ngay niroog ñëpp ci dégg-dégg rappeur yi bëri nañ mais flow ak rythmique la ñuy wuteeg ci dégg-dégg yenn saay nga dawal mu gaaw yenn saay nga dawal mu yéex yenn saay nga koy dagg daggee benn benn la flow bi màgg imisanga ijaphise yemisanga itamise yemisanga itaxi rhythm ak benn flow bu demee yenn sanga bàyyi mu glissé nooy nepp yëg ni mu lissé yenn sanga gondi bit bi waaw sanga jàppe ko nit di mënoo te amoo rhythm carrière yàggul doo xami mbiram rythme soxla nañ ci ay milliards foo ma ma jox la ay liaas yow hey rhythm doole musique dokk mooy rhythm uh, yeah yeah you know we got the best rhythm we got that feeling in your chest rhythm. Hey rhythm. Dårlig musikk, dette må i rhythm. Uh, hey yeah, you know we got the best rhythm. Uh, we got that feeling in your chest rhythm. Zeg nigel. dolly bijval, zeg nigel. Alright. zeg <laughs> nigel. Dole Baye Fall Cheikh Ndigal. xaaja guddi ma comme so biir studio kàddu stylo xam ni ma war ni acteuru cinéma tax ma assuré sama bopp coonoon ci bëgg a tekki dama jàng ci ndaw àndandoo xar ma ma ñëw ba ma ma dee ba ma koy xas a gisuma leen xaaja guddi yaa ngi na laaw ba ma dee yaa ko xameelu ma kenn no no daara daara daara ameelu ma kenn dara par sama yaay sama bopp sama baay ba tekkil coono sama yaay booy badar ngeen ma jàngal man faalew ma jàngal lu noon di saale noonu la doo samay waajur ñaanal nañ ma nee nañ ma demal te ñëw ku bon bukki normal xat ci mbow la ragalu ma coow no no no caractère bi bor ngeen ko kaa jar ma ci dëgg doon laa petit yëpp dama ko baax ñaanal ma ngeen ma sigil sama baax xamoo fay teg sa tànk laaraan dégg ci ñoom Gima kodan wak nyep sebe kunen Aja gudi Aja gudi Aja gudi Aja gudi Aja gudi, aja gudi Demal demal demal Demal demal demal Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. c'est le vieux, hein? ça c'est le vieux, moi, je suis pas prêt. Euh, di kilifa di ko xamante ne def na jéego yu am solo euh, ci wàllu musique sénégalaise en général parce que ku ne xam na ne euh, bu ne musique sénégalaise elle est plurielle ba tax na moom muy spécialisé wu ci musique bi ñu naan musique séeréer am na jaar-jaar nag ndax def na def li nga xamante ne moom mooy métier chauffeur yooyu yëpp dinañ ci waxtaan looloo war a sax tey ñu tàmm ko parce que dafa nekk ay nit yoo xamante ne dañ leen war a jàppale ja war leen accompagner parce que tout simplement joxe nañu lu bëri pour seen réew uniquement rek pour taxawaay taxawaayu drapeau donc léegi-léegi dinañu ànd ak moom moom waxtaan ak mom ci euh, carrière bi euh, mu wax ñu jafé jafé yi nga xamante ne jot na dund ba ci jamono ji ni mais waxtane aussi ak Pape Ousmane Cissé l'actualité politique et sociale euh, Sambou Biagui est parmi nous ce soir mais di leen fàttali ne l' international Mbaye Sène administrateur sport inter mom tamit jamono ji mu ngi ñuy xaar fofu ci Russie ñu am yu bari yo xamante war nañ ko waxtane ci phase bi nga xamante fofu lañu la toll muy quart de finale dinañu waxtaan ak Sambou Biagui ci walum basketball parce que LeBron James amna actualité bu am solo bu ñu wara waxtane mais aussi waxtane euh, non Lyon lions euh, ils pas il finissent pas de de nous nous impressionner euh, parce que des gis nañu stadium Maris Ndiaye lu am solo bi nga xamantene coach muy Adidas donc mom tamit dinañ waxtaan yu bari ci actualité Abdoulaye aussi ci high tech dina indi ñu ay donc toujours c'est dans toi-même tu sais le rendez-vous incontournable qui se déroule du lundi au vendredi 17h 19h ñu nous suñu papa tout de suite. رعد امتسام ravi de vous retrouver comme euh, tous les après-midi, les meilleurs moments de votre journée. Toi-même, tu sais, euh, nga c'est la chaîne de diversité avec toutes les actualités euh, nga bien sûr ak Ndanan. donc léegi def dañuy andak. depuis Russie pour bien sûr nous donner l'actualité sportive nationale et internationale international pour ñun lu jëm local tout de suite Mbaye Sen. bonsoir alaikum. Salam alaikum Nicolas salam alaikum wa DTV ak ñooñu nga togg sa plateau bobu yépp. sinon ça se passe bien. ça va alhamdulilah on s'accroche très bien Alhamdulillah. <laughs> mais mais mais, ban heure moo jot pour instant bi actuellement heure reer daal il est 20h et poussière daanaka vingt 21 heures moins. heure reer daal Nicolas. Quand heure reer jot quand nous comme ça nga mën a dem reeri. Euh, maa la ko te nga ay mbiru tubaab la restaurant la. deux mais très bien nous allons démarrer avec le football quel avenir pour l'équipe nationale d'Aliou Cissé. quel avenir euh, suñ ko waxee loolu dina Yatou parce que xam nga booy am na si ñoo xamante ni bii jot nañoo wax ni ils vont prendre le retrait international bien que démentir nañ bu nekk information bu vrai. Mhm. muy Jaafara Sakho ñi nga xamante ni bii aussi jël nañ benn âge ko ci mel ni Moussa Sow yaakaar naa ni ak ñeneen ñoo xamante ni bii nii seen continu ñu continue ñu continuer équipe nationale dina nekk loo xamante ne bii lu may jaaxal la waaye beneen jàngat bi nga xamante ne bii ni maa ngi koy def Nicolas mooy on a eu quel avenir pour l'équipe nationale du Sénégal dama xamul ne dama ko dugal ci porox ndoll bo wala dit mais nak pour dire vrai on a eu énormément de mal pour travailler ak li nga xamanteni mom moy l'équipe nationale du Sénégal ta su fekkante ne dañoo jóge Sénégal suñu ñëwee fii war a jël équipe bi war koo mën jox information yi war koo jox sénégalais yi nga xam te ñooy déglu parce que ñu ñëw fi relé sénégalais mais ñu lay tijjil entraînement 15 minutes do mëna entraîner do mëna xol entraînement do mëna xol dara lolu c'est pas normal loolu moy cri de cœur bi nga xamante ñu ngi koy lancé. c'est à la fédération de prendre ses responsabilités. Hmm. Aliou c'est le sélectionneur national. il il aurait dû quand même nous laisser quelque temps pour ñu jéem ko yeneen sélection yi ñepp seen journalistes yi dañoo am un contact ak seen sélection mais ñun. dafa mel ni dañoo bunkeriser tanière bi on nous a vraiment empêché de travailler loolu mooy li nga xamante ne bii nii moom mooy benn njàngat boo xam te mën nañ ko def. Très bien. Donc après euh, football, quel avenir euh, pour l'équipe nationale d'Aliou Cissé Nous passons à la gestion des fédéraux. Euh, ndax ñu koy remise en question mu nekk lu lu lu jaaxal sénégalais yi nekk fii. waaw mais xam nga lan mo lan mo xam nga li ñu wara def moy nak jotna waaw ñu ñu Aliou Cissé ko xamante bi ni c'est un excellent technicien. Mhm. lool moy ben ñaarel ba fédéraux yi ñu jéem a xool naka la ñuy liggéeyee parce que dafay xaw a mel ni anarchie suñu nekkee fii di gis yenn affaire yi le président Augustin doit prendre ses responsabilités damay ñëwaat ci li mu wax léegi. ci yenn affaires yi comme lu ci mel ni lan Mbaye Sène yenn affaires yi lu ci mel ni lan yenn affaire yi mooy ouvrir l'entraînement à la presse ben deuxièmement aussi amna amna yenn manquement yo xamante bi su démé ba am rek on ah, dañ kuñ koy kuñ koy adressé directement moy le président de la fédération de football parce que mom mo fi représenter état mom mo fi représenter dont le ministre des sports est là dont aussi les fédéraux sont là mais suma suma suma suma su équipe nationale du Sénégal Augustin Sénégal. il faudrait que les fédéraux aussi ñom jël seen ay yenn manquement yi bari ñu bañ ko am yenn di bañ di nek, lool la ni war nañ saytu war nañ pour permettre parce que yenen campagne ngi ñew, Coupe d'Afrique 2019 Cameroun mu ngi et nañ aussi Coupe du Qatar 2022 tamit Sénégal qualifié waat fa mais yi jotta a am ni su amaatee encore day nek lu jafé pour ñi nga xamante bi ay envoyés spéciaux la ñëw liggéeyal seen organe te nag loolu suñ ko défé de pour ñom mais pour sénégalais yi nga xamanténi ñi ngi fofu tok Sénégal wala au delà même nek dans la diaspora ah. mun jot li nga xamanté moy information nécessaire Très bien, donc après la gestion des euh, fédéraux remise en question, nous passons toujours à Mondial 2018, euh, Wartane vers des euh, quarts de finale de feu, c'est vrai Les quarts de finale de feu, l'Angechi Sentou ah quart de finale de feu de li bi huitième de finale bi génn de nek na huitième de finale bu doy war doy war su ma ko waxee ñaari gardien yi Peter Schmeichel le fils de de Peter Schmeichel ancien gardien de but de Manchester United l'ancien gardien de but danois celui avec les partenaires de Michael Laudrup et de Brian Laudrup yàgg na. ak équipe bi nga xam te Croatie Croatie na suñ ko waxé xel dina dem ci Devor Suker Croatie suñ ko waxé xel dina dem ci Boban Croatie xel suñ ko waxé xel dina dem ci Blažević way ñaari gardien yoy ñom ñoo éclaboussé démb huitième de finale bi nga xamante ne moo amoon ci coupe du monde bi. Mm-hmm. waaye beneen match aussi am gis nañ aussi le natif de Bondy. l'ancien ancien sociétaire de l'AS Monaco acheté à 180 millions d'euros je parle de Kylian Mbappé il est en train de de de faire des choses extraordinaires. ci mm-hmm. du monde bi. Mm-hmm. idol idolâtré par ses pairs. et il bat dans la foulée le record je dirais même il égale le record de Pelé un monument du football. gis nañ aussi yeneen match yi nga xamante ne jot am le Brésil s' imposé deux buts à zéro. Euh, l'Uruguay qui sort Portugal de Cristiano Ronaldo surprise amu ci toutes les équipes se valent cette compétition Nicolas amatul équipe bu ndaw légui, léegi dina am benn boo xam benn huitième de finale buy am digante Belgique avec Japon Japon sun pour le y a une surprise aussi mun na ci am en attendant euh, beneen beneen yeneen ñaari huitième de finale yi am suba Suède ak Suisse ak bi nga xamante moi Angleterre ak Colombie Colombie nag ñu pas moom ñun ñoo bokkoon poule très bien Mbaye Sène mais euh, jamono jii nii am na yu bëri yoo xamante ne ñoo ngi koy nekk di ko euh, laam-laamee di wax ne am na yenn sénégale yoo xamante ne jot nañu leen fekk foofu ci seen ay hôtel génnee leen ci euh, loolu bu nekk benn point beneen point bi mooy dañu dégg tamit ne am na ay sénégale yoo xamante ne doon bëgg daw far ñu jàpp leen donc loolu ma bëggoon rek boo ñu ci mënoon indil ay leeral bu nekkee information yooyu yoo jot nga ci am lu gën a leer li nga xamante ne moom la ñuy dégg jamono ji fii ci Sénégal Nicolas bala ñu doon dem xam nga ñu ko doon wax yaakaar naa ni dañoo xamut Russie ndaxte doo fi dafay metti gis nga fan ID yi ñu la wax waxuma la ñun sax accréditation yi ku fi dugg Russie xam nañ kan la balaa ñoo jóge Sénégal Sambou Biagui moomu toog xam ne li ma ku ci ne si ñun joxoon nañ la benn puce mooy identifier lañ la soo yegsee xam nañ lan la ku yaakaar ni nag ni wala yéen a njublan gi suñ ci duggee pour jaay nit ñi yóbbu leen defal leen ay fan ID yegg si fii même buñ doon dem fi nga xam te mooy Samara parce que on avait pris une voiture amatuloon vol def nañ 36 heures de route les policiers checkpoint yi dafa amone dañu doon surveiller di laccé accréditation wala li nga xamante mom moy mooy euh, fan ID pour ñi nga xamante ne ñoo amul accréditation ça prouve que ni sécurité réew bi xam nañ ko bëss bu coupe du monde bi jéxé ku bokku Russie ding ci génn. lool moy ah. information bu jëk bi. d'accord ñaareel bi moy euh, fédéraux yi nga xam jot nañ leen génne je pense qu'il y a une une incompréhension parce que jot naa approché hier j'étais parti à l'hôtel où loge le ministre des sports ak quelques fédéraux pour euh, taaf jéem a xool information bi nga moo tax am na mhm. mais bi ma gisee ñenn ñi bi ma gisee ba pare ak journaliste bi ko génne ñun ñoo dëkk muy Ignace Ndeye ñun ñoo dëkk un ami un frère un mhm. professionnel j'ai pas aussi aimé l'attitude de certains yi nga xamante ne nee nañ ko xamul li muy wax xam na li muy wax parce que ñëpp xam nañ hôtel comment ça se passe su fekkante ne toog nga ba midi mhm. fay nga midi boobu da war a génn su dépassé midi nag dañuy fermer chambre bi donte seen bagage na nekk ci biir su fekkante ne fay nga peut être ñooñu teen dañoo génnoon dañ defee ay courses wala ni euro lañ yoroon dañ ko waroon dem wecci ji en CFA parce xamuñu loolu Russie xamuñu loolu ñu ci bëri sax dégguñu anglais xam nga ku déggul anglais dafay naqaree waxal seen hmm. langue lañ dégg te fii ci ñun kenn déggu dañoo jël ay interprète mais xam naa ne incompréhension am na mais fédéraux yegg si nañ benn moment ñu ne leen kat chambre fay leen ko xam naa ni Ignace il a professionnel parce que dañ ko jox ay information mmh. te nag journaliste dafay protéger li nga xam te ne moom mooy source am mais incompréhension moo am mais mais lépp rentré dans l'ordre waaye kanta à yi moom Russie ku fi Nicolas di ci génn. très bien le Russie ku fa beaucoup di nga fa génn bu coupe du monde bi jexé mm-hmm. mais vous euh, oublier, pour ñu à ci euh, actualité yi nga xamantene jot nañ ko waxtané ak Mbaye Sène mais euh, ba tey mu ngi and ak ñun Mbaye Sène muy football mm-hmm. quel avenir pour l'équipe nationale d'Aliou Cissé mais la gestion des fédéraux remise en question et puis dernier point bi muy vers des quarts de finale de feu donc buñ vous ko un tanké rek lan nga ñu ci mëna jox comme impression. D'abord, euh, <clears throat> son première impression, moi, euh, Mbaye Sen wax nako, moi l'avenir de l'équipe nationale du Sénégal. Je pense que amna lo xamantene faaw mu joggé fi mm. parce que Mbaye Sen wax nako. Moi mm. d'abord, il est il est il, il est il est vraiment tant que amna ñoko jour ñoko. Mais depuis légui ñu ngi répéter même chose bobu. Man Oui, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. C'est-à-dire c'est-à-dire mm. ñom Mbaye Sen d'ailleurs, ñom Mbaye Sen d'ailleurs euh dama leen di incriminer touti. Je pense que euh, peut-être. Mais c'est beaucoup incriminé, tu l'as beaucoup. Tu la beaucoup. Quand je dis, je dis la presse. Je dis la presse, mais surtout, nous avons maintenant nous dem. Mm-hmm. Peut-être aussi, c'est fait euh, à dessein. Parce que euh, presse bi dafa sori won joueur yi fa mm-hmm. presse bi dafa sori won fédéraux yi fa ñu ne mm-hmm. parce que am un loo xamante ne euh, ci équipe nationale am na loo xamante ne bu amee ci biir équipe nationale munoo fexe ba gagner. quelle que soit la la la la la qualité du groupe avons gagné parce que Mais le groupe aussi a, besoin d'une certaine sérénité. Oui, ah, ben ben, ben mais je pense à ce ah, niveau. Je pense à ce niveau. Là, cette sérénité-là devrait être construite par Alucissé. Parce que c'est le patron de l'équipe nationale du Sénégal. Je pense que c'était à, lui d'imposer certaines choses. parce que compétition il ça y' a beaucoup de gens qui sont partis ils ne sont jamais ils n'ont jamais mis leurs pieds à Demba ils n'ont jamais mis leur pied à l'opposition à, à la fédération et aux techniciens. À la fédération et aux techniciens. Très bien. Donc, tu benen point B Benen point B. Mais hmm. l'avenir de l'équipe nationale. Oui. Pour l'avenir de l'équipe nationale, hmm. je pense que Mbaïsen a souligné un, un, aspect important. Oui. Aujourd'hui, hmm. est parti à la Coupe du Monde sans aucune expérience. Ni lui, ni l'encadrement technique. Je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas euh, pour que Alucissé parte mais il faudrait renforcer à l'UCC avec un technicien expérimenté. La gestion des, des, des, fédéraux. La gestion des fédéraux. De mise en question. Euh, oui, mais bon, c'est des postes électifs. Donc, amna lo xamantene tant que Wadi Djedoul sa propre responsabilité, bayi, yo mounon ko fa Parce que, avant la Coupe d'Afrique, l'Assemblée générale mm-hmm. Assemblée Générale, mm-hmm. Assemblée Générale, Momolen, élire. élire. Donc, il mounon ko fa Il faut mandat Maintenant, il y a certaines choses, yo xamantene, mm-hmm. euh, ils sont délégataires de pouvoir. Pouvoir bignor, mm. c'est le pouvoir de l'État qui l'a, qui l'a délégué, délégué, délégué, ses pouvoirs. Donc, mon ami qui Mondial 2018, quart de finale de feu. Quart de finale de feu, par exemple les deux mondialistes, les deux mondialistes, nous avons Coupe du Monde, moi France-Uruguay, c'est déjà une affiche de finale. Mm. Donc, euh, deux, des joueurs qui se, connaissent, la France qui connaît par exemple Cavani, mm. euh, de, Mbappé, euh, par exemple, aujourd'hui. Qui est un qui connaît Soares. Voilà, comme par, exemple, par ah. exemple, voilà, ah. merci. Ah. Donc c'est c'est une vraie finale <coughs> dans la lettre. Donc c'est dit tout simplement que nous avons dem huitième de finale mhm. ça veut dire que Angleterre mu mhm. Colombie mu mhm. Belgique ça veut dire que nous am une affiche bu mais man bëgg la coupe du monde sera gagnée par le coaching le meilleur coach mm -hmm. gagnera la Coupe du Monde. C'est pas l'effectif. Très bien. Voilà. Merci beaucoup euh, Sambou Biagi. Euh, Mbaye Sène ma bàyyi la rek nga def sa kàddu bu mujj ginnaaw nga dégg li nga xamante euh, Sambou Biagi yëkkati na ci trois points yu am solo yi nga xamante tout à l'heure yaa ngi ci doon wax donc ñu bàyyi la rek nga def le mot de la fin. dëgg la dëgg permettre rek ma ma ma wax ak tuuti ak Sambou juste pour rectifier un truc. en fait je n'ai pas dit je n'ai pas dit que ni fédéraux euh, ku c'est vrai que ce sont des postes électifs mais quand même tu as dire que ni ndax ñoo décision non ça c'est trop dire honnêtement je laisse à l'appréciation du public ah. quant au renforcement de l'équipe nationale du Sénégal c'est un point de vue personnel parce que la ma ni Cissé c'est quoi qu'on puisse dire quoi qu'on puisse dire mon nañ li nga xamanteni ni Sénégal gëjoon na ko def en 2002 je dirais que il a fait quelque chose boo xamanteni ay prédécesseurs am defuñ ko ndaxte Sénégal toog nañ depuis 2000 mënuñoo génn match de poule mu yóbbu leen quart de finale ñaareel ba qualifié na équipe nationale à la coupe du monde loolu mooy li nga xamanteni ne li am. Mhm. toog nañ premier tour il faudrait que ñu ayons raison garder que nous ne sommes pas une nation de foot une nation de foot je dis que nous on a encore rien gagné on est en stage d'apprentissage. apprentissage. yaa ngi may dégg li ma la. wax coupe du monde wax coupe d' ba voilà loolu la Voilà, accord balaa ñoo coupe du monde nañoo coupe d'Afrique. légui nak ñettel bi nga xamanteni bi ni sambu Biaye ngi wax par rapport ak euh, ak ak ak ak ak ak fi nga xamanteni fa le journaliste nekko nous sommes à Kalouga L'équipe nationale du Sénégal était logée à Kalouga ñun ñu ngi Kalouga fa la ñu logé ñun tamit mais le centre d'entraînement, le traitement bu ñu d' le fait que 15 minutes bi ñu entraînement doo am et gis na yeneen nation comme que tu mel on peut prendre la France bi nga xamante ne moom wax le sélectionneur Didier Deschamps vient avec 3 à 4 joueurs gis nañ li nga xam tane moy conférence de presse la presse mënta yakal équipe nationale parce que lu euh, Kalidou lu Kalidou Koulibaly nekkee sénégalais ah. Non, le la Abdoulaye Thiam nekkee sénégalais mhm. nu Sadio Mané nekkee sénégalais Non, la Amidine Sy nekkee sénégalais ni nga xamante ne Lamine Gassama nekkee sénégalais Non, la Bamba Kassé nekkee sénégalais tant d'autres tant d'autres tant d'autres c'est pour montrer que nous, liggéey la bo xam la main dans la main presse bi yakal sama équipe nationale et Nicolas suñu doon wax dinañ wax lu doy waar parce nag fi la nekk te yu bëree bëri fi lañ ko fekk te dañ ko noppiwaale mhm. tey si ñun ku ci doon wax di nga wax loo xamante ni bii di nga xeeb dinay xeeb diw mais duñ ko def parce que nag on a benn droit de réserve boo xamante ni bi la presse du lépp loo war a xam rek war koo mun a wax foofu rek nag laa yem très bien donc Mbaye Sène ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax ñu ngi ñu ngi kontaan encore une fois ci euh, disponibilité bi ak euh, professionnalisme bi nga xamante ne euh, am nga ko ci li ngay def mais am na lenn loo xamante ne sàmm biyaa gi yaa ngi ko bëgg a wax Mbaye Sène waaw waaw loo ko bëgg a wax amul amuñu droit de réserve waaw ah. c'est des journalistes ah. ils ne font pas partie de la fédération ils ne font pas partie de l'équipe nationale c'est des observateurs avertis non amul droit de réserve waaw ah, la oui waaw Mbaye Sène oui waaw Hein? Allô allo. waa euh, Pape Ousmane ah. ak Biagi yëpp dañoo bokk d'accord ci benn affaire muy le linge sale lave en famille. Oui, ma Nicolas. oui. xam nga comment nga le le le berger high-tech de de l'émission, émission dégguma ko xanaa nekku fa. je mu ngi fi mu ngi nii mu mais question ñoo jubagum. kontul ci le linge sale se lave en famille euh, tu en dis quoi. par rapport à ah, l'équipe nationale Nicolas Nicolas le linge sale se lave en famille te am na yenn yoo xamante ni bii. Ah. dëgg dëgg am na dëgg yoo xamante ni soo ko waxee mu tas réew doo ko wax. ça veut dire toute vérité n'est pas bonne à dire. yaa ko wax ci nasaraan bi te lolo. am. Abdoulaye lii am na lu mu bëgg la laaj très rapidement Abdoulaye. Aïcha, le berger euh, maa ngi koy déglu man bon li ma xam ci football bariwul ah mais noo len dundee fofu technologie russe bi comment ça se passe par rapport au Sénégal. mooy mané mané mané mané ma y' a une très très grande différence xam nga fi le peuple li nga mëno sax moy le peuple est très poli xam nga ñoom. waaw ma le peuple est très poli moo tax ñi nga xamante ne bii ni ko nañ leen ne dañuy jéem daw su ne boo xam 10 hein? jours après le 17 le 27 de le 28. fi dina melni ciéré buñu mokulé di dina set wécc ci ku fi bokul dig fi génn.

ça a été un match extraordinaire démb ce sont les deux gardiens qui ont été les hommes du match man su ma jox FIFA homme du match ñom ñaar la koy jox hmm. waaye nak football fo gis dina am huitième de finale bo gis dina am kenn ku tok am kenn ku jall parce que nak élimination directe dafa commencé hmm. mais les deux gardiens Mohamed xam muy Peter Schmeichel euh, Kasper Schmeichel di dom ci Peter Schmeichel ancien gardien de but équipe bi nga xam tane moy Danemark xam nga wax naa ko léegi Danemark ñom Mikael Laudrup mm-hmm. Danemark bu ñom ki nga xam tane moy mooy Tofting mm-hmm. xam nga su ko waxe xel dina dem ci 2002 Danemark bu ñom Dal Tomasson am nga lol c'était la grande équipe danoise bi repêché en 1992 jël li nga xam tane moy mooy Euro bi benen mm-hmm. équipe bi Croatie la les Damiers Croatie de Boban euh, hmm. Croatie de, de Devor Suker, Croatie de, de Krasnitch. Mais ils hein, ont souffert, ils ont souffert. Hein. De, de ils ont souffert, mais Nicolas, c'est pour te dire qu'il n'y a plus de petites équipes. Benel match bi nak moy mang la ko wax sa émission tay de li mo mëna né. Waaw. Xam nga Cristiano Tokna. Waaw. Messi tok na, Salah Tokna. waouh. Waaw. Sadio Mané Tokna. Actuellement ni Sadio Mané Tokna, na ci la doon actuellement ni. Hmm ben affaire amna Kylian Mbappé match de livrer livré contre Uruguay. contre contre contre contre Argentine. waaw su ko livré contre Uruguay. France dem demi-finale mu livré waat match C'est c'est émission là on va waxee France dem jël coupe bi. il faudra compter ce petit comme futur ballon d'or man on la ko wax. d'accord d'accord très bien merci beaucoup Mbaye Sène euh, à très bientôt. Hein merci à très bientôt Mbaye Sène xanaa huitième de huitième de finale yi suba rek incha allah dinañ dem ces défis ji parce que xam nga nous suivons la coupe du monde luñ ci jëlee rek incha allah dinañ dinañ ko dalalé. non non non bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr on est de tout cœur hein. on est fier. et puis euh, di la ñaanal nga dem gëna dem ca kaw ca kanam ci lu baax euh, Sénégal sénégalais nam nañ la lool en chair et en os hein, parce que amna yu bëri yo xamantene ci plateau toi même tu sais nga ko mëna a Malakoff. mais mais Nicolas. l'administrateur sport inter. mais Nicolas. Mais Nicolas. Nicolas pour tëj rek démb. démb ñun pas nekk fii ñun ñëpp pas fii démb. waouh On a suivi le basket au stade Maris Ndiaye grâce à Sambou Biagi qui nous a donné toutes les informations. Merci Biagi. Euh, Biagui. Eh, Lolo, ça mérite des applaudissements. Hein. merci Mbaye Sène merci. jaajëf Mbaye Sène merci beaucoup. mais laaj ko ana Toftine mais oui ma mais oui ma mais oui ma pour ñu jeexal. Ah. ana ana Toftine ana Toftine. waay waay xam nga Toftine nag dafa dafa soxoroon trop ku wedd laaj ko Salif Diaw ak Pape Bouba Diop. en 2002 Toftine lu romb mu jëm la am. suñu Toftine suñu Toftine la waaw non suñu Toftine ñun suñu Toftine ñun suñu Toftine ñun suñu bos. tofti non tofti ngi fi da nga dem sax. très bien merci beaucoup. merci merci merci Mbaye Sène. voilà Mbaye euh, qu'on a toujours un grand plaisir en tout cas ñu avons ak petit ci waxtaan lepp lu jëm ci actualité sportive nationale et internationale. Ah, donc mu ñu gis muy liggéey liggéey bu am solo fofu depuis euh, Russie ah, toujours dans Toi-même tu sais euh, c'est on continue l'actualité sportive cette fois-ci avec le Sénégal rempli son premier et se qualifie remplit son panier. son panier. Oui, oui, oui, son panier. rempli son panier et se qualifie au second tour. Ouais. Basketball. Basketball mooy éliminatoire Coupe du Monde xam c'est la première fois muy am. Da daa bu njëkk ba. dañu wa da bu njëkk ba. voilà non non non. dañu def non non Coupe d'Afrique. waaw ku jël ku jël les trois premiers. trois premiers ñoom ñooy ñoom ñooy génn ñoom ñooy génn. Mm-hmm. mais léegi dañu dañuy def éliminatoire parce que bu boo bu njëkk ba basket bi dund won en Afrique. est-ce que du sous forme de parrainage rek non non non c'est comme le football non non c'est comme le football ah. ça permet aux équipes africaines de vivre bu ñuy dem coupe du monde ñu am compétition absolument gis nga lui football loolu la ñuy éviter mu le basket parce que le football cinq matchs la ñuy joué qualifié nañ coupe du monde mm-hmm. le basket dañuy une coupe d'Afrique foofu faut désigner les trois premiers une compétition ñu dem coupe du monde boobaa duñ fa def dara mm-hmm. mais compétition bi daf di permettre éliminant euh, daf leen di compétir ñu am daf leen di permettre ñu am compétition. Mhm. Mhm. xam nga par exemple Sénégal organisé na fii. oui tournoi. Mhm. pareegul. joué nga ay match. d' accord pareegul. nga war a dem deuxième tour. joué waat beneen yeneen match. très bien nga jógee foofu nga dem coupe du monde boobaa doo fa dem ñu ne léegi non parce que am problème physique la wala amuñu compétition. loolu kenn quoi ça permet au basket national de vivre te boo xoolee tant que championnat d'Afrique afrobasket amul. Mhm. par exemple Sénégal do xamné équipe nationale mu ngi joué. mu ngi la. mais ak éliminatoire yi. Mhm. dinañ xam ne Sénégal mu ngi joué. Mhm. bu boobaa day permettre ñeneen joueurs yi aussi ñu mëna e-, ñu mëna ñu mëna exploser. donc le Sénégal a joué trois matchs. Euh, ça tombe bien Sénégal mu ngi jógee ci Nakar dugg ci <laughs> bànneex. ah ça permet les lions du ah, basket. ah non, daal nga ko defee ah, noonu football dugg ci bànneex. bànneex mais mais mais mais aussi euh, pratiquement trophée yi nga gëna yi nga xam yëpp. Euh, basket moo la ko jox soccer. oui c'est ça parce que le les trophées majeurs c'est arts martiaux en les arts martiaux. Mm. mais dans le sport collectif. basket mon copain, basket, basket mon dit. dit Moi, les garçons euh, c'est vrai que nañ depuis 97. mais les dames aujourd'hui ils sont les reines du basket ah, basket ah, euh, euh, africain donc Sénégal joue nos trois matchs trois trois matchs trois victoires Sénégal qualifié le deuxième tour Mouara fait a fekki foofu Nigeria, Mouara fait fekk faut euh, ñi nga xamante ñaar qualifié mhm. donc dañuy jouer tournoi à xamante deux poules lañ koy def. Mhm. deux poules les les deux premiers ñoom ñooy qualifié le meilleur troisième donc ça veut dire que rien n'est encore joué. Mhm. mais le par étape là. Sénégal sont mu première étape bi. Mhm. deuxième étape mhm. donc c'était un match vraiment Gisna Marius Ndiaye nu mu avons nit. que ñu bari peut être premier match bi mu Euh, ñu bëri ñëwuñu woon. mais Sénégal ni mu joué deuxième match bi gars yi gën a ñëw troisième match bi gis nga stade bi. dafa fees ba ci biti dafa mel ni comme Coupe d'Afrique bi passé rek ah, match yi ñu jot a joué fii dem joué yeneen match yi. match yi ñu fi jot a joué dafa doon def plein dafa def plein parce que fii tamit quoi qu'on puisse dire dëkk bi dañu xam basket ba pare dañ hmm. koy dañ ko bëgg. dañ ko bëgg c'est-à-dire c'est-à-dire football. moom mooy sport yóbbaale ma. waaw c'est-à-dire am na ñu ci sport majeur bi quoi waaw waaw parce que ñun am na ñu ci ñu ci ñu ci kii bu dul coupe du monde wala coupe d'Afrique. waaw doo leen dégg ñu ngi wax ñu ngi wax ñu ngi wax football. Mm-hmm. donc parce que y a l'équipe nationale qui est là même club bi bu ñuy jouer ligue des ligue des champions wala coupe de la CAF. doo gis kenn. Mm-hmm. donc ça veut dire que mërirandoo la rek la. moom moo leen di yóbbu ci football mais le basket tey boo la gisee ñu fay ñëw da nga xam ne ñii dañuy dund basket. Mm-hmm. waaw xam nga même quand quand les familles se mobilisent. oui ah ñëw ànd ak. Euh, Seni une di basket koy dund donc c'est très très important donc le Sénégal se qualifie au deuxième tour après de très très bons matchs même avec un Ndoui ñom def nañ gis nañ ko ndoy encore ay ay ay raquettes donc c'était c'était c'était vraiment intéressant donc ça permet au Sénégal donc de se qualifier au second tour Très bien, donc après le Sénégal remplit son panier et se qualifie au second tour, nous passons toujours au basketball, cette fois-ci avec le NBA. Ça c'est... C'est C'est. C'est. Hein? Mm, ça c'est l'actualité. Ah oui, ah ouais. LeBron ah James qui ah rejoint les Lakers. LeBron James qui quitte les, les Cavs pour rejoindre les Lakers de Kobe Bryant. Il a craqué. C'est extraordinaire. Il, va, est-ce qu'il va faire mieux que Kobe Bryant Il a passé 25 ans, pour ne pas dire toute sa carrière. Il a tout gagné avec les Lakers. Euh, LeBron James euh, avec un salaire de 16 milliards, pour ne pas dire 17 milliards. Ah. Euh, aujourd'hui, par, par an. Par an. Ouais. On l'a acheté à 137 milliards. 137, 137 milliards, des Il a fait 16 milliards à avec un sponsor aujourd'hui, c'est le sportif qui a plus de sponsors mhm. que n'importe quel autre sportif. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, mhm. ses sponsors dépassent trois fois son salaire. Donnez. Wow. Et ça veut dire tout simplement, euh, ça, c'est LeBron James. Ça c'est LeBron James, c'est pas, c'est pas, voilà, en ba il li ci gën a am solo. Mhm. Lakers il que depuis que vous Lakers rek am na ñu ko rejoindre. Ah ouais am na rejoindre ku adversaire à Golden State. Mhm. avec Stéphane Curry. je da rejoindre. Euh, Lance Stephenson. da ko mhm. rejoindre Indiana la playoff. Euh, euh, franchise mhm. donc kii Pop tamit avec les Lakers ça veut dire tout simplement attention. Attention, ça, hein. va, changer. Uh-huh. Parce que c'est un homme de défi. L'homme n'est pas le LeBron James ah, quand il allait au Cavalier oui. Ken titre ah. mais quand il est venu il était seul contre tous mhm mais première année imposer il a imposé son jeu il a imposé son jeu avec ñi son style son style très bien euh, moom dinañu am am am leneen ñu ci non man dama xam LeBron James quoi en fait ko suivre mhm. club bu mu dem rek fay dem Miami en fait Cavs la nek. Je lañ ko formé après mu mhm. dem Miami mhm. après Cavs tu vois, actuellement, il veut finir dans un club de légende. Nous savons Los Angeles Lakers, légende. Que ça soit Chucky O'Neal, Karim Abdou Jabbar. Mhm. Récemment, quand mon mhm. Kobe Bryant. Donc, voilà quoi. C'est juste pour dire que LeBron James, voilà, il est parti pour devenir légende ou international ñun ñëpp dañuy toxu dañuy jógee Cavs aussi dem di supporter Los Angeles Lakers yaakaar ne dina jëlaat ay MVP yu bëree bëri. d'accord c'est un jour bu ñu waxee Lakers xel yi dem ci Magic Johnson. ah oui exactement c'est Los Angeles. waaw tax le club de Los Angeles Los Angeles dans les États-Unis absolument c'est une ville mythique. Hmm. Euh, te basket moo ko ko may. waaw quand LeBron James quitte un autre club pour aller. Euh, à, à aux Lakers. Nga xamné jarnako? Euh, jarnako. Hmm. En deux saisons Nicolas, hmm. il a inscrit 8333 points en deux saisons. Mm-hmm. Avec 16 milliards, hein? il est parce que c'est pas, pas, pas n'importe qui. Et aujourd'hui, son fils hein, est courtisé par les grands clubs. Ils veulent le prendre tout de suite de commencer failli alors que, mm-hmm. alors que, euh, D'accord. Très bien. Donc, merci beaucoup pour ces actualités. Euh, nous continuons toujours en beauté. di leen fàttali ne euh, jamono ñu xel grâce à l'application DTV Sénégal ou le site internet www.dtv.sn ñu ànd ak suñu partenaire aussi mu di euh, sanga TV.com. point dina am yeneen actualité yoo xamante ne dinañ ci dellusiwaat toujours bien sûr avec suñuy source ku ci mel ni Sénépeople People, Momi, dinañ ànd ak moom ngir mu am yoo xamante ne dinañu ko fësal ñu ngi ànd ak suñu papa muy kilifa tudd Cheikh six di artiste des chanteur mais ñu gën koo la euh, musique bi nga xamantene ne moy euh, musique séeréer. six euh, na nga def. ma ngi rek nga am ah. ci musique. Oh, eh, li ci musique. grand frère mo def musique ni Samba bon bu dem commencer après man daal téema lu tax mënuma def li sama grand bi def. neex boo ne neex moom. neex bi moom neex daal loolu la parce que su demee xumbali ci su mbokk séeréer yi ngeen yi ak yëpp moo ko doon amee presque. ak ay yu bëri quoi affaire bi neex daal ànd ak succès. waaw waaw gars yi di ko topp. voilà léegi nag. ci laa ñëwee rek mais bi may dugg sax. boobu lan nga nekkoon lan nga ne lan nga doon def balaa nga ciy dugg. boobu man balaa ba di ci dugg. boobu apprenti apprenti laa doon def apprenti car rapide. car oh ay euh, quatre vingt soixante onze ah. nga waaye Pape Ousmane yow soixante onze foo nekkoon. Eh, ndox la ñu hmm. moom tam ne beneen la naa ne moom fekkee na lu bëri. <laughs> Ah, moom waaw vert moom moo ci gën a bëri. moom ah, waaw. ah yow kon bi nga doon bi ci bi nga doon yëngu vingt la. waaw d'accord ban ligne nga doon daw. Euh, maa dem na ligne yëpp kay Colobane Grand Dakar. Wakam hmm. Pikine. Hmm. Guédiawaye ay Kasori ñun ñu station lañ doon yem. daal yaa ngi fàttaliku kàddu nga doon wax. Euh, boo doon yab client. waaw kàddu yooyu noonu est-ce que rek. ñu delloo waaw parce wax. <laughs> waaw <laughs> man man fàtte naa ko sax. si si si si géejawaay ba géejawaay. pikin gën a gën a gën a gën. naan pikin tali bu bees si géejawaay. ana waa waas pikin nga dëkk de. moom yàgg na dem boobu waaye pikin lan la ñuy wax foofu moom. ana waa waas. temps yi ma doon dem li ma am laay di jàng. waaw dama doon tëgg wëndeel apprenti rek. doon fay dama ba. yegg ci école bi gis ah. élèves yu bëri rek ma cëpp dugg ci biir mais benn jour benn apprenti fekk na ma ba suñu biir classe <laughs> naan ma ñëwal paas eh. <laughs> ci biti voilà benn Ivoirien moo ñëw Sénégal ko ah. moo war a jógee Fass moo war a moo war a mm-hmm. léegi moom bëgg a jël car léegi gars yi waa ji apprenti nu mu doon waaye waxee Grand Dakar grand grand grand <laughs> mu ñëw rek mu ne ma Mais le gars là, il m'a dit cran cran cran cran. C'est pas cran cran, c'est grand Dakar. Grand Dakar. Grand Dakar, Grand Dakar, Grand Dakar. Cran cran cran. la. Très bien. Waaw. après bu ma jógee foofu. Waaw yooyu. Ah. Yii lu lay fàttali. Ah, non yii jamono bi sax ay dafa naa ah, ak kii ah, kastoor ah. tileen ak kastoor. waaw 20 francs 20 francs nga dugg. kay ñeenti dërëm. waaye tey dundu démb. ñeenti dërëm waaye. 15 francs sax amoon na. 15 francs amoon na. 15 francs amoon na diggante yooyu quoi. Mm-hmm. ah taxi fukki dërëm la woon boobu jamono yooyu. non boobu nag taxi nag bariwul woon quoi. mais ah, taxi moo waaw bariwul woon. mais taxi yooyu bu ko doon jël en général. ñeenti dërëm taxi yooyu ban année exact ñeenti dërëm bi 15 francs. ay ay. ay ay ay jamono boobu côté boobu sax ay 71 ay yooyu daal. 71 74 74. boobu dañ doon dugg Dakar ah booy côté mairie. waaw voilà léegi waaw léegi duñ fa yegg. waaw waaw boobu dañ dañ foofu arrêté la woon. Mhm. c'est vrai oui d'accord. ma fa jógee bon après euh, may dem ci musique bi après comme amoon naa permis de conduire. Mhm. bon bañ a toog xam nga mag moomu ñu toog. léegi dama bëgg a dama dama dama ŋarale foofu damay def musique en mu ta defal ça rapide. waaw waaw en ta temps. jamono ji may jaay café. ba pare di jouer batterie. waaw <laughs> après bu ma jógee man daal war naa nuyu samay mbokk yi ba pare ñu ngi may seetaan fi mu nekk nii ko waaw eh, eh, eh, sa mbokk yi ah moom séeréer mu demee moom mbokk mi lay demee quoi. maa ngi sama mbokk séeréer yi waa Morola. séeréer mm. Nduti yi. Mm. maa ngi di waaw di leen wax nii daal. kontaan naa xam naa ñu ngi may parce que amoon na xam ni waxoon naa leen ko. mais mercredi bi daal waxoon. dëgg la waaw boobu ci bu ñu xoolee ci xayma war ngaa def trente à trente cinq ans de carrière. waaw album single vidéo. à partir à partir de vidéo bi ma def. waasanam euh, bii. Hmm. bi ma euh, boobu boobu laa def ci orchestre. mais si parce que national. ah bon ndey waasanam bi. waaw ah. Joana Saare Ngaare ina ina yàqute. Hmm. man maa ko reprendre def ko clip. d'accord bon morceau bi. waaw ah, jox ma ci tuuti rek ma dégg. juwaana saari ngaari na ina yakume a saari mayto. ma kuwaala ya. bon xam nga fekk. ko kañ wax ñu woon ubbee. kon après moom la ñuy def boobu la ñuy def d'accord ah? comme waaw d'accord. comme da ngay ba parce que comme dafa nekk wooyu jàmbur. kon jaar nga orchestre national yaa ngi foofu ba tey. non man retraité. ah waaw mais mais mais yaa ngi doon wax ah, ah. dafa mel euh, naa ko métti parce que man bu ma la waxee euh, chauffeur euh, ministre yi nekkoon foofu fekkee yëpp. ministre Abdoulaye Elimane Kane. Abdoulaye Elimane Kane. maa ko waaw maa ko doon boobu ban ministre la culture la nekkoon ah, man culture la mos a nekk. ah culture la mos a nekk. waaw Koureba eh. Thiam culture la mos a nekk moom maa ko doon waaw ak kan Moustapha Ka yëpp dawloon naa leen kon Serigne Diop Sadax ta fekkantew leen. non non fekkantewul ak Aïssata Tall. waaw après ci laa bi ma delloo orchestre nag la Aïssata Tall ñëw. ah ci lay doog ci laa koy ci laa koy gis mu communication foofu foofu la foofu la logé ah, ah. la Diop nekkoon. Ah, waaw boobu jamono yooyu noonu boo sama xel dina dem ci benn gendarme bu ñu Moussa Diouf États-Unis léegi tonton Moussa Diouf. waaw wax naa ko moom tam mu ngi woon foofu noonu. waaw Moussa Moussa Moussa waaw mun naa. Ramatoulaye Fall. xamoon nga ko. waaw Ablaye Gueye waaw waaw. waaw xamoon naa ko ah, waaw waaw Castor. waaw waaw waaw. waaw ñi ma xam bëri na sax waaw dëgg yàlla tamo jamono boobu daal mm-hmm. boobu ñu ngoon building daal lañ nekkoon d'accord retraite bi nag ba yaa ngi bi daal euh, dama retraite daal xam nga ñun musique amu ñun artistes yi ñun daawuñu toppatoo loolu mm-hmm. pour bu ñu paree rek dañu mën a am sunu passion quoi mais bi ma génnee dama ñëw laajte gaa ñu seen tur figurewul sax ci IPRES. ma ne ko ah man mosuñu leen fayal dara te ñun daañu dañu daan coupé. waaw hmm. daaw dañ coupé seen kii yëpp. Ah, ñu ne amatu leen amuñu fi dara man noonu laa demee organisation depuis 2015 laa dem ba léegi maa ngi sama bopp laay doxal amatuma dara samay doom yi doon jàng école sax dàq nañ kër gi moo nekkoon du la demoon ba amul waa ji quatre cent mille. Euh, yàlla xam nga. la woon ban kër la woon. Medina. Medina waaw plus de commune ba am arrière quatre cent mille. quatre cent mille. waaw moom mooy soxna ak say njaboot. waaw xam naa moom mooy dëgg fu nekk mais cent mille francs la la ma la amoon bor bi ma jotee benn somme nag ma abaas ko. waaw parce que comme bi may génn de amoon na woon quatre mois yoo xam ne kenn fay ma ko woon. Mm. bon loolu dama il a fallu ma toog trois mois quatre mois ñu jox ma ko jox. bu ñu ko jëlee dem ko ci biir beneen pour mën a toogaat ci kër gi. waaw parce que pare gu ñu woon pour ñu mën a la. d'accord waaw. kon jamono ji jamono ji waaw delluwaat naa toogaat naa rek mais ci toog ak difficulté. parce que. fu mu toll nii foo dëkk. maa ngi dëkk foofu ba léegi kër gi. ci kër gi kon kër gi ñëpp ñu ngi foofu. ñëpp ñu ngi fa. man yàlla may na ma juróom-ñeenti doom bant. mais yàlla baax na ba am na si ñu ngi ñu ngi may jàppale de temps en temps léeg-léeg ñu ngi dugal rek mais nekkagul kii quoi en tout cas. Mm, mm. orchestre national yaa ngi ànd ak moom di tukki léeg di def ak ñoom ay liggéey. Euh, maa ngi ak ñoom man daal musuma génn fii. Mm. Europe man musuma génn euh, euh, Afrique. Sénégal Sénégal musuma génn mais nag dama région yëpp dem naa fa. région yëpp dem na moom mu dee dawal moom fu ma demul région bu ma demul ci Sénégal amul. amul. parce que man. ndax dawal bi nga doon dawal ay ministre waaw parce que ministère. ministre yooyu nga xamante ne yaa ngi leen doon jàppale est ce que tey di nga dina lay faral di dal nga dem seeti leen ah, dem xool ñoom tamit lan lañ la a. jàppale ginnaaw jotoon ngeen collaboré. oui oui xam nga depuis bi ñu wàccee ba léegi bi Abdou Diouf euh, bi ba léegi. ñoom xam dañu wàcc. Hmm. léegi ñooñu presque bon.

Euh, encadrement bu baax parce que li muy wax ni bu dee cotiser nañ ñu am ñu leen mën a jàppale suivre dossier bi wala nañ mën a am gain de cause mm. euh, ci li nga xam ne jot nañ ko liggéey ci jamono boobu doon cotiser mm. mun ci jot dugg seeni fonds mm. parce que xam nañ ne kuy liggéey dafa métti encore que nga décroché dafay gën a tar mais toujours est-il que maa ngi courage bu mu am. Mhm. parce que ba léegi bàyyiwul mu ngi jàpp. de du bàyyi de. Euh, te loolu aussi waaw jàngat la bu rëy waaw du bàyyi xam nga mhm. séeréer yi ñoom. Mhm. duñ bàyyi de ñoom dañu ànd ak ah. pas-pas ak. ak ak dund bi bi mu ngi fi. mu ngi fi ba léegi dañuy continuer donc ben courage de boo xam ne jàpp naa ne xëy mën mën na servir d'exemple jeune génération bi nga xamante lu ndaw rek ñu dem. Mm-hmm. lu ndaw rek ñu gedd dem et tout. Euh, pour man lool la ci gën a jàng. nit ku baax sax nit ku baax sax euh, boo yàkkamte sax doo ko xam. doo ko xam donc lépp rek ci ci ci dal ak tey. ñu ngi ak aussi euh, monsieur Cory Diouf muy enseignant licence en gestion des entreprises ISCA mm-hmm. coordonnateur de l'union nationale des enseignants socialistes membre du bureau politique du parti socialiste mom tamit nek invité Pape Ousmane ñu am yéene waxtaan ak moom lu jëm ci euh, de actualité 2019 euh, une candidature euh, socialiste pour préparer la présidentielle de 2024 Cory dégg nga sa mbokk séeréer ginnaaw bi mu daanalee ci morceau bu am solo bi wax na parcours am tuuti xam naa ne waxaguñ si sa parcours mais ci parcours ban jàngat nga ci am macha d'ailleurs d'abord damay sant yàlla di nuyu ñëpp di leen nuyu yow Nicolas di nuyu également Abdoulaye Ly di nuyu aussi Pape Ousmane di nuyu sama biyaag yi dama kontaan bi may dugg si su ma xamoon ne loolu laa fi fekk caay lay indaale. parce que séeréer culture am la xam. donc damay sant yàlla. Mais indil ma caay boobu noonu. waaw xam naa bu ko indee man jaral na ma ma changé tout à l'heure exemple la sànq juju nga ko mais non seulement li mu wax que ne da doon dawal ay dawalal ay ministre de la culture. vraiment j'espère que actuellement war doon nekk xëy na ci condition yi mais aussi sànq euh, Pape Ousmane juju na ko xëy na moom tam ñàkk a xam am na loo xam ne bu ko toppoon yaakaar naa retraite am du demee nii. Mhm. mais nag yàlla baax na. Mhm. voilà yàlla baax na dara weesoogul. et nag c' est pas par hasard. ñu fréquenté fii parce que ñi mu cité sànq. c' est des socialistes. donc c' est des camarades kon eh, eh, moom yaakaar naa ab camarade socialiste la. Mhm. donc ay Abdoulaye Elimane Kane. ñooñu vraiment. waaw voilà c' est des socialistes. c' est des socialistes très bien am na loo bëggoon wax léegi xam nga moom nag day bàyyi mu ah, concentré wu. papa euh, yaa ngi téewoon naa ba bi ñuy kenn du wax <laughs> lu dul yow. xam nga yaa ngi waaw dama lay ñaan waaw ma. ma je suis une personne je suis une personne particulière. déedéet déedéet waaw particulière yow dama bëgg nag mu am na ay systèmes yoo xam boo fa nekkee. dimbali ma rek teggil sa tànk. waaw waaw waaw léegi daal léegi nangu naa lool léegi man maa la ñaan am na fu may nekk te que léeg-léeg da nga may cukk da nga may da nga may jox benn tuyau boo xamante ne. te walaay ñun ñëpp lay cukk. ñun dañoo dem ba. waaw ba ba kii ko. waaw di ko laata dugg yoo xam da ngay bëgg jël ko naka ndox ma yóbbu. da ngay da ngay dugg benn rek nga bëgg mu génn foofu. waaw ayca waaw duggal ci parce que fu mu génn foofu. waaw c'est di vol. pur la réalité c'est sàcc la. parce que xam nga lu tax. kii mu ngi naan bu fekkoon mu amoon weesoogul ba léegi. Mhm. mun na ko topp mu am génn cause. léegi ñu génnee yow da nga bokk ci ñu mais mais évidemment dinaa ci bokk dinaa ci bokk et ko wax ci seen bureau politique. sa bureau ah, politique la bokk waaw ah bureau politique la nekk. na ngay souligner bureau politique parce que kii mag la mu am juróom-ñeenti bant. Mhm. nag yàlla na yàlla def kilifa. amiin ba ñu mën la ba ñu mën a mën la jàppale. amiin amiin ngay fay IPRES nous ne la yaa lay nga ko sa salaire koy dem à la retraite porter plainte d'accord porter plainte très parce que c'est pas normal je pense que de de conseiller pour il n'est pas le seul mais comme ah, ah. particulier franchement man ça m'a touché ça m'a touché d'accord Abdoulaye juste pour dire que IPRES moy premier propriétaire foncier au Sénégal. Hmm. qu'est-ce qui explique cela. Quand nga cas wax c'est pas la première fois qui koy dégg au Sénégal. Il y a des gens qui cotisent. toute leur vie ñu dem ñu maintenant à qui la faute parce que buñ ko bëggee teg ci kaw IPRES dafay compliqué. parce que est-ce que ñi leen doon dagg ñu ngi koy yóbbu biir IPRES. loolu tamit waaw est-ce que ñu ngi ko doon versé. c'est toute une chaîne boo xam ne dañu ko càmbar xool ko. voilà léegi nag ci benn maillon bi rek mën nañ ci kii mais ah c'est mooy li Pape Ousmane ñu ngi ko doon versé IPRES. waaw cotisation yi mi ngi doon yegg IPRES. mais suivi bi ci war a am moo ci amul. Mhm. peut-être jamono yooyu. amuñu woon technologie bu doon permettre nit ñi bu ñuy dagg muy am traçabilité. jamono yooyu ay këyit moo amoon. Mhm. mais lu mu wax nii topp ko Mm-hmm. ba parce que IPRES depuis 1960 jusqu'à présent ñu ngi fi. Mm-hmm. ya amna na benn bureau des archives. bi nga xam tim lepp lu nit cotisé won so démé di nga ko fa fek mm-hmm. soko bayé ni day yomb. comment ça fait-il que IPRES nek premier propriétaire foncier au Sénégal. bâtiment yi nek Sénégal yëpp IPRES moo fa nekk. loolu pas indépendante ñu ngi di tabax. Voilà, donc il y a des choses, il y a des choses, parce que fonctionnaires aussi dañuy ko de trop. quoi bien, Pape Ousmane man nak loolu ci li ma lay ciy digal mooy euh, utal ñu euh, kenn bokk ci IPRES Euh, mu ñëw ñu waxtaanee point yu am solo yi nii parce que ba tey dafay def actualité euh, ñaari nit wax nañ ko muy Sambou Biagi ak euh, Abdoulaye yi pour wane ne que ne du moom rek du du moom rek voilà am na yeneen ka yoo xamante ne yàgg nañ ko dégg ci réew mi donc yooyu war nañ ko mën a fësal ut ci ay solution ba seeni i borom ñu ngi lay sargal bu baax waaw dafa am loo ci bëgg dool yi dafa lu bëgg dool ndax man avant may xam ni affaire bi am na jublan Euh, bi ma defee 32 ans yi après dañu jox ñu jox ñu yeneen kayit ñu nañu léegi directeur bu bees bi moo leen moo leen embauché embauchement bi euh, moo leen defal contrat contrat ba mm, xool naa ko muy juróomi at maanaam léegi sama 32 ans yi yëpp dafa ñii léegi juróomi at la ñu wersal léegi mm-hmm. D'accord, très bien accompagner euh, pour euh, donc tout de suite euh, sans plus tarder nous démarrons la qualité de l'Internet appelé « appelée c'est maintenant très bien donc euh, moui actualité ça se poursuit mu Tila, la haute cour de justice de la CDAO euh, tranche en faveur de Khalifa Sall les acteurs politiques se prononcent lui ci même à maître Mamad Adama sur la décision de la CDAO euh, l'État doit reconnaître humblement sa faute en essayant de corriger ça donc loolu dañ ciy Dakar Actu normalement moom moo Tilo fësal ci arrêt de la CEDEAO Bataille, tey sur l'affaire Khalifa Sall et dit qui parle de euh, camoufler pour euh, le président Macky Sall qui euh, am le juge doit libérer Khalifa Sall si trois points de suspension d'après le professeur Ndiouga juriste Mom nak ñu donc actualité bi mm-hmm de façon euh, ou bien de manière générale mhm. euh, li moi ci wax euh, continuité wu li nga xamante CDAO CEDEAO Khalifa Ababakar Sall ak ay oui Nicolas c'est sur la procédure je pense que depuis le Khalifa Ababakar Sall les cours bi wax un peu le ñenn ñi que ce soit conseil Khalifa Ababacar mm-hmm. Sall. ak yenn ci wa société civile bi mm-hmm. ñoo xam te ne yëkkatewuñu seen kàddu wax di dafa am vice de forme. Mm-hmm. ci procédure bi ni ñu téye Khalifa Ababacar Sall ba ñuy yëkkati euh, immunité parlementaire bi on se rappelle. à l'époque on avait deux ministres de la justice avant Ismaël Madior Fall di ñëw euh, ki fi njëkkoon nek dafa waxoon ni carrément ni Khalifa amul won immunité parlementaire té ñew deugël ni si amna que bala ñukoy koy condamné wala ñu koy atté hmm. il faudrait que d'abord li téggu ci kawam ñu teggi ko kon njëkk am moy ñak téewam bi mu téewul woon. ci assemblée nationale et pourtant on se rappelle Issa Sall bu pur moo njëkkoon bind lu mel non doon ko wax. am na ñoo xamante ci ci ci ci tamalé bi euh, bi ñu yégué né deseewu jubali ci cas. waroon na mën am lu euh, mu jouer am lu mu joué ci sen conscience mais malheureusement ñu ko tay lolu mu ngi leen di rattraper moy que ni vis de forme dafa amone ñi yagone wax que ni ci procédure dañ ko biaisé ils ont raison aujourd'hui dooma ni xanaa cour bu CEDEAO dafa dafa dafa am parti pris mm. que ñoom dañuy dugg ci formation politique yi am ay yu mel noonu peut-être xëy na dina gauche mm. donc lu mel nii dafay ñëw dëggalaat li nga xamante ne ay inquiétude ñu bëri amoon nañ ko et comme ni mu ko waxee ni xëy na la juge en appel parce que première instance la ñu condamné woon ko cinq ans defoon nañu appel ñuy xaar Euh, que lu même non lan lay je pense que fii quelques jours les donne le 9 juillet sur ma lañi ñu édifier ci lu mel non moo muy wax ni il va falloir que euh, juge bi djel euh, li nga xamantene moy courage à deux mains mm. mu xaw ñu un peu ce qui s'était passé mm. ce qui s'était passé au Kenya ci élection us one juge bi courage bi mu pour né d'après éléments yu am apprécié élection yi ni mu doxé que ni mm. amuna na ay que résultat yi ñu joxe mënul joxe lu moy que ni il faudrait que ñu delluwaat ñu defaat defaat ay élection pour man mhm. juge yu mel noonu tey soxla nañ ko ci d'autant que lu aussi nii aussi dafay indiwaat jaxasawaat xeli nit ñi jàpp mhm. ba léegi ci conscience ñenn que ni justice Sénégal à deux vitesses am justice boo xam c'est pour les vainqueurs mhm. justice boo xam c'est pour les vainqueurs et pour man la démocratie sénégalaise moom. très bien te pourtant euh, ci procès bi ñu ci amone jot bu rafet ak euh, juge Lamotte. Ah, ñu mm-hmm. bëri di wax né euh, taxawaayam. ci expérience am ak waaw doole moom jot na am. Mm-hmm. Ah, donc aujourd'hui on parle de Khalifa ababakar Sall. Mm-hmm. hier ñu ngi non wax jafé jafé bi nga xamante ne amoon na ci Gambie. ñu gis né Sénégal dafa toppoon procédure bobu nga xamante cda mom moom la tëraloon. tey nag ñuy xaar mu topat même même même procédure bi ci kaaw Khalifa Ababacar Sall. en tant que socialiste. nga bok comité directeur Khalifa ababakar Sall ñu xamé ko ci. Euh, bureau politique du moins euh, Khalifa Sall ñu xamee ko ci euh, parti socialiste. Mhm. ñu bëggoon xam rapport yi ngeen am est-ce que bi mu fa nekkee ak léegi mos nga ko seeti <laughs> et puis tey li nga xamante ne CEDEAO xës na di ko di ko di ko fësal. Mhm. ban ban appréciation nga ciy def. jërëjëf Nicolas comme ni nga ko waxee ah tey loolu la ñu lire ci internet bi réseaux sociaux yi partout. Mhm. Euh, procès Khalifa Sall. Attention, hein, c'est depuis jeudi ou vendredi. Hein, bataille hein. je veux dire tout simplement que son ex-camarade Khalifa Sall, parce que c'est un ex-camarade. Ah Son camarade mm-hmm. mais désormais c'est un ex-camarade. Nous sommes parti. Mais en tant qu'ex-camarade. tant que camarade. Mm-hmm. Nous, parce que Khalifa Sall est wuñ ko ex camarade du ndam ñaanuñu woon yàlla ñoom ñu génn parce que politique massification la plus le mais nak tam parti politique dafa am ay ay ay ay ay ay texte ak ay statut yo xamantene que moko moo ko lal boko respecter yang ci bir boko ko wul on est obligé jëlee la fa. da nga jàpp Khalifa ababakar Sall dafa am lu mu san ñi ci ñom respecté wuñ ko woon déjà. dox ma ñaari ponk yo xamantene yow gis nga né mom la parti xam nga xam nga lan la wax. Hmm. nee na boo nekkee un camarade nekk un militant du parti socialiste tu es tenu à respecter les décisions de nos instances et que nous, seetlu nañ ko ne ñoom respecté wuñ ko woon. comment respecté wuñ ko. bi parti bi décidé que dañuy ànd ak Benno Bokk Yaakaar exemple bu simple laa lay jox bi parti bi réunir décidé que on va aller avec la coalition Benno Bokk Yaakaar mais ñoom dañoo génn dem taxawal seen yëfu bopp donc respecté wuñ décision yooyu parti bi def ne boo xoolee ci suñu texte yi au niveau de l'article 7 def ne carte parti socialiste est incompatible avec une autre carte à vocation politique voilà te loolu dafa leer ñoom gis nañ leen ñuy jaay seen carte membre ay ADK ay je ne sais pas quoi. kon débat boobu j' espère que weesu nañ ko. jëlee nañ leen fii ñoo ngi leen di ñaan ñoom seen yoon bi ñu topp bu dee moo jig Sénégal yàlla may leen ci ndam mais cas bi ma ci ñëw sànq li nga xamante ne que ne CEDEAO génne na ko cour de justice de la CEDEAO c' est vrai am na ay professeurs de droit yu ne euh, loolu ça s'impose à l' état sénégalais mais aussi am na ay professeurs yoo xam ne nee nañ déedéet ku ci mel ni Modou Gadiaga. Hmm. Modou Gadiaga c'est un professeur professeur de droit au niveau de la faculté de droit à l'université de Dakar Mom, li mu wax leer na boo ko oui détention arbitraire pour kaw Khalifa Sall. fenn rek lañ ko mën wax mais boo xoolee avant Khalifa di nekk député détention arbitraire amul foofu. Hmm. bi Khalifa nekkee député avant ñuy dindi son immunité parlementaire ci période peut-être mon nga ne détention arbitraire à na mais ba ñu dindee immunité parlementaire détention arbitraire d'autres femmes. parce que tout simplement vous un député vous le protéger Mais si vous mais une toute protection de immunité parlementaire assemblée nationale moko dindi. mais avant ñu avant résultat yi <laughs> Khalifa de facto est député.

Le, le, le, député Issa Sall avait écrit Bien le 13 juillet, mhm. Diamano Boum, le président de l'Assemblée nationale. Mais attention, loi, président de l'Assemblée, Moustapha Nias, mo am sañ-sañ. su nelawee ba defu ko nag. Ah, bokkum député bi yee nak non non du nelaw ah, attention lolu lolu président Moustapha Niass. kon nu ko mën du kon dafa déggul kon euh, règlement dafa déggul taxi wala ah, lan. dëgg dëgg mais lan mo tax Moustapha Niass c'est un homme d'état reconnu. alors lan cette question précise là, wax. Mhm. pourquoi mu am négligence boobu. de sa part d'autant que xamoon nañu. Khalifa Ababacar Sall coow li li mu drainé yëpp. ba fi ci du négligence parce que tout simplement bokkatuñu ay gis-gis ci wàllu politique. du loolu. avez naqari pour ñu a gëm lu mel non non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça ça à dire que réew dafa am nu muy doxee te na muy doxee euh, kuréel bi ci jiitu mooy fexe ba état de droit ñukay koy respecté mooy amul kenn ko wara a mm-hmm. d'accord mm-hmm. jéggi mm-hmm. jéggi lepp lu yoon amul kenn ko wara a jéggi léegi ñu bàyyi ko réew boobu ngay euh, dox fofu la njëkkee ci CDAO ci CDAO bi mu taxawé ci CDAO oui ñun Sénégal gis nañu politiciens yi génn nañu commencé nañu wax maître Mame Adama Gueye Idrissa Seck mais c'est un débat oui oui débat juridique mais vous en pensez quoi mais man lima ci xalat moy déjà procès bi le 9 juillet dañ koy atawaat et que ñun socialistes on est des républicains dañuy xaar nous, tribunal il nous décider ñun socialiste parce que nous ay républicain D'accord. tant que le tribunal prononce, merci nous nous, nous. très bien Nicolas ça continue hein ça ça poursuit son petit bonhomme de chemin Nicolas xam nga dafa am premier mot dafa am solo da nga cdao nga hmm. nga indi ne respecte les décisions de la CDAO, et ici on ne veut pas respecter les décisions de la CDAO. Mm. Ce que je veux dire, juridiction, peut-être les juristes sont en train de me, suivre. Nyari, Nyari Kala. Avant de juger le fond, mm. les avocats, call d'abord est-ce que la mm. forme y est. Ils ont trouvé que la forme n'y est pas, ils ont dit que Khalifa Sall ne peut pas être jugé que votre cours, et c'était la plaidoirie des avocats de Khalifa Sall. D'accord. votre cours, le juge Lamotte, ne peut pas juger Khalifa Sall. Mhm. Parce que forme bi Deux à deux niveaux. Mhm. Premier niveau d'abord l'Assemblée nationale. Mhm. deuxième niveau. Premier niveau l'État ne peut pas être euh, comment s'appelle euh, ne peut pas être euh, parti. dans ce procès parce que Khalifa Sall ne gère pas les fonds d'un État. État. Il gère les fonds d'une population, d'une communauté qui s'appelle la collectivité locale, qui est donc la mairie de Dakar. Mhm. Donc, il y a forme la mhm. forme Khalifa ne peut pas être jugé par votre cour et quand la décision de la cour mhm. l'on l'a retrouvé ça veut dire que les droits de Khalifa Sall ont été bafoués donc ça c'est la cour de la CDAO. d'accord Nous, l'État du Sénégal a ratifié très bien donc yooyu bu amee. waaw euh, il faut ñu le bon sens. voudrait que véritablement qu'on respecte la décision de la de la cour de la CEDEAO. Mm-hmm. d'autant étant donné que am na yeneen décision yoo xamante ne génn na ci kaaw Khalifa Sall. Mm-hmm. yoo xamante ne état bi accepté na il faut pas oublier. Mm-hmm. il y a beaucoup d'autres décisions yoo xamante ne. l'État a accepté les, la, les décisions de, de, la, de, la, Cour de, de la, cour de la CDAO. Mais Bini, on ne sait pas pourquoi, étant Nangu Nanguko. Mm. Voilà très bien nous avons malgré euh, le verdict hein? bi nga euh, euh, la haute cour de justice bu CEDEAO nous euh, le ministre Ismaël Major Fall a maintenu la même position que Khalifa reste en prison il faut savoir que le ministre Ismaël Major Fall a été élu mmh. pour rendre l'impossible possible comment ça nommé comment nommé voilà bon chaque fois bu ñu wax ci Khalifa je suis catégorique dama naan lii politique taf yëngal pour mën a jël benn adverse potentiel adversaire politique président de la république hmm. ñu indil ko ay problème tëj hmm. man je ne mange pas mes mots hmm. je ne suis pas journaliste je ne suis pas politicien je raisonne en tant que un Sénégalais lambda. Mhm. Ils ne vont jamais accepter la décision de, de la CDAO. Pourquoi mhm. Mhm. Parce que ça ne les arrange pas. On se dise la vérité. Khalifa Sall, du gain, du CDAO, on y pour taper sur la table d'une que gain parce que ça ne les arrange pas. Comment ça de la justice de, de ce Parce que ça ne les arrange pas. Nicolas, ça, quand tu voit pas la face qu'on se dise la vérité mm. procès depuis le début nous avons droit nous ñu droit Nous avons fu muy mm. nous jour un problème avec euh, nous ñi nga droit au Sénégal Nous avons censé droit nous avons université mm. pourquoi parce que tey même texte nous avons gëm li, nous ñu

Euh, man gisewuma ko noonu lan moo xew. Hmm. quand même y a des faits yoo xam ne mën nañ ci dut baaraam. mais pourquoi à 90 pour cent des populations même chose boobu la ah, ñuy da nga def sondage bi. waaw non moom moom laa lay ah, wax. je ne le pense pas. ñu bëri jaar nañ foog ne 90 pour cent des sénégalais. dañoo bëgg. ñu sàmm ñoom li ñu moom seen impôts yi. kenn weddi alors faux usage de faux. Hmm. yow Dakar di fay seen impôt ñuy dajale jox la ko ngay gérer nga ne man jënd naa ceeb. jënd naa dugub. gaa yi ñëw xool gisuñu ko. mais est-ce que amuñu sañ-sañ laaj la mm. foo ko dugal. Ah, bu localité fekkee nag ñun politiciens yi ñun dañoo am possibilité de na ñëpp def politique hmm. mais kon parce que je suis je suis je suis conseil municipal. je suis conseil municipal man. je suis conseil municipal la ne alalu mairie collectivité locale du alalu état.

programme ñëwee par exemple programme de développement local programme de développement local ce c'est pas la collectivité qui gère mais c'est plutôt l'État et ses membres qui gèrent mais quand en ce qui concerne la collectivité locale mm-hmm. c'est une institution boo xamante c'est pas une institution de l'État mm. waaye da ma nangul leen waaw mais dama bëgg a ñëw ci form bi parce que yow da nga dugg ci fond bi. Mm. fond bi parce que tey man en tant que en tant que en tant que conseiller. Mm-hmm. man maa war a porter plainte. Mm-hmm. moom maire bu fekkente ne jalgati am na. mais pas à l' ñun conseillers ñun populaire ñoo war a porter plainte contre le maire parce que jalgati na def na li def na li. mais pas à l'état et sur le fond du ñun ñooy nekk fii pour wax xalifa. Mm-hmm. Mm-hmm. la koy toppee jël na ko. moo ko def wala defu ko. Mm-hmm. on dit procédure. encore une fois de plus. la cour de la CEDEAO waxul ci ay fonds waxul ci xalifa def na ak deful. dafa ne ci biñu ñu nee def na. bàyyi ko mu daane ba nañu ko mm. téye. d'accord ba niñu ko tëjee. Mm. amna ci lu salfaañe ay akam la ko salfaañe nak avant mom ko bi di ko mm. ñu bari ci ay observateur waxon nañu ko. ci añam biñ ko téyewoon. ni ñu denn urume euh, parlementaire ci loolu lañuy wax. maintenant nag ku bëgg dugg ci fond bi ya un débat politique là-dedans. am na loo xam tane xeyna su dossier bi. Ah. ñun maîtriser ko dugg nu ci mënuñ ci wax. merci beaucoup ñu andon ci ak suñuy euh, confrère lu ci melni euh, Dakar Actu andon ci ak Seneweb waye Sen Café Actu ak Adama Sow euh, mu ngi n'est xamal euh, fatwa du ministre de la justice contre Khalifa Sall malgré le verdict euh, favorable de la cour de justice de la CEDEAO Khalifa Sall va être maintenu en prison selon le ministre de la justice muy Ismaïla Madior Fall donc le moo nekkoon bi nga xamantene jamono ji en tout cas ça fait ça fait le buzz hein, ça fait le buzz ah, dans les sites de de l'internet ah, internet internet yëpp dañ ko reprendre donc ku ci nek rek amna na lu mu ci liggéey ñu continuer nak dugg ci actualité bi waxtaan monsieur Cory Diouf Diouf euh, enseignant licence en gestion des entreprises Iska, que euh, coordonnateur de l'Union nationale des enseignants euh, socialistes membre du bureau politique du Parti socialiste L'Union Wartan, pas Pape Ousmane moment hein, 2019 une candidature socialiste pour préparer la présidentielle de 2024 est-ce que xel n'est pas nangu 2024 kon 2019 cest ça Parti socialiste un candidat en 2019 bon xel mais nu mënti demee hmm. parti bi mooy décidé xam nga li tax parce que ñun parti socialiste yàlla dafa dogal ñun réew mi ñoo ko njëkk jiite jiite ko jóge fi waa PDS ñëw tey yàlla dogal ñuy ànd ak Macky mais jamono jooju ak léegi dafa am évolution yu bëri yu ci am man jàpp naa ne contexte bi ñu nekk tey ah hmm. parti socialiste dañoo war a ànd ensemble jàppale Macky Sall mu am deuxième mandat xam nga li tax. Hmm. kon da nga bëgg wax ni kon ma ñëw. Hmm, candidature parti socialiste c'est exclu. c'est exclu du man maa koy wax. Ah, instant si ñoo koy wax mais ci sama xalaat. mais yow comptable nga de. je suis comptable te fañ koy waxee danaa ko wax. Hmm. fañ koy waxee. ma bokk ca muy bureau politique. question bi buñ ñu ko posé danaa ci wax xam nga lan lay wax. nañu jàppale président Macky Sall te dama ko teg fu leer boo ma may tuuti ma ñu ci loolu. fi ma ko teg mooy dañoo gagné ak Macky Sall en 2012 boobu ba léegi ñoo ngi gérer ak moom yor fii ay ministère donc on est comptable tey nag mënuñu ànd ak Macky Sall ci ngor ak fulla ak fayda ngir askanu Sénégal ba mandam jeex ñu ne hee dañuy génn ndax Macky Sall yow defu fi dara xaaral ñu ngem un socialiste pour mu jëlee la fi c'est pas cohérent ci sama xalaat politiquement parlant moralement parlant c'est pas élégant kan sax ngeen ni ngeen problème mooy loolu c'est pas élégant nga yaakaar ne tey bu demoon ba scénario wala am ñu bëri ngi kan pour faire face à Macky ban candidat boo xam mën na fédérer les socialistes d'autant plus que xam ni tey mm. euh, Khalifa Ababacar Sall bi ngeen perte c'est une grosse perte boo xam ne tey mën na xëy na ci question yu bëri yoo xam mën na ko régler quoi qu'on puisse dire am na force de frappe am na ay élections yu dem yoo xam ne wane na boppam. Mhm. moo xam ci coalition boobu noonu mu tippee woon euh, taxaw Ndakaaru et éventuellement beneen taxaw Sénégal. Mhm. lu mel noonu jóge ci yéen est-ce que yaakaar ngeen bu da ngeen na. mën euh, na romb li Ousmane Tanor amoon en 2012. mais laata may ñëw foofu dama bëgg nga may ma as tuuti rek. moo wax li tax ñu war a jàpp tuuti rek parce que dama junj rek. au <laughs> delà de aspect moral politique boobu. dama dañoo gis ñun socialiste doxalin Macky Sall le socialisme bien sûr. Mais nga socialisme mooy solidarité. te boo xoolee le président Macky Sall ci géré bi muy def boo xoolee ci couverture maladie universelle. mais ça c'était un programme programme Ousmane Tanor Dieng boo xoolee en 2012 da nga ko ciy gis mais loolu ñun dañ cee gis suñu bopp. Hmm. te du ma yem ci ci foofu boo PUDC mais purement socialiste récemment boo suivre les étudiants yi. gis nga seen seen yi ni ko yokkee mais loolu mooy socialiste ñun population bi moo ñu yëkkati bu ñu gisee président Macky di def loolu mais yaa xayti gis na ci suñu bopp war nañ ko mën a jàppale léegi xam nga lu bëri sénégalais yu bëri li laajte mooy kon moom waroon mën nañ na yokk bourse bi bu yàgg ba pare ñu ne mais affaire bi du yokk affaire bi mooy ñu leen di mën jot à temps ñu xam ne ñun le bu jotee. lu mu bon bon bon ñun ñu dugg. daal loo yokk yokk ñu ko jot le 20. am solo bourse yi dafa am solo mais sànq dafa ma ne Khalifa kese moo mën a nekk suñu candidat. waxuma

ko laaj nii lii diw nag moom da nga mu fa teg te leer na ma ne ab xalifa la moom mooy lan ah. mooy maire actuellement mooy maire nga mënul a gagné département kon nu mu nekk mais élection yi passé wóone na ko yan élection département élection chaotique yi ñu génn chaotique chaotique non mais attention ah, au sein du PS il y a énormément de cadres kii kii dañu jox ay du ma cité kenn mën nga ah, ma permettre non non non mën nga cité juróom juróom waaw menacé bon bu ma njëkkee ci kenn du ma parce que c'est des camarades bon bu ma nekkee monsieur il est de Kaolack c'est un plaisir il est de Kaolack il est l'actuel ministre de l'éducation il est en train de faire un travail extraordinaire qu'est-ce qu'il a gagné à Kaolack ci entrepreneur foofu dama jàpp ne Sénégal yi sax xamuñu kan mooy Serigne Mbaye au niveau national récemment au niveau international waaw léegi est-ce que mais mais carrément macha Allah après Serigne Mbaye mais il y a d'autres camarades ma cité ma cité menacé gaaw gaaw gaaw TMTC dem mais xoolal <laughs> du rek parce que ñi moo tax du dëgg. macha allah dama ne. Mm-hmm. juróomi nit. Mm-hmm. ñi nga jàpp ne tolloon nañu Trump ak xalifa Ababacar Sall. nga commencé par Serigne Mbaye Thiam tout doucement rek tok ñu yeneen ñent mais xali ñu ñent ñu duggal leneen ñii ma lay sital sax ñom ñoo ëpp xalifa d'abord kon sax wax nga ma Serigne Mbaye Thiam bu la nexé nga tek ci Abdoulaye Wilane yaa ya nga dégg mais maire la wa mais est ce que mën nga yeggali ñaar bien sûr tel bi kala bu la nexé nga nga tek ci euh, Aliou Ndoy mais la neexee yow lay nexé neex dem lay cité ya koy cité Dakar Plateau Aliou Ndoy d'accord ak ah, mais bu la nexé mairie Grand Dakar bi Jean Baptiste mais bu la Jean Baptiste bu la neexee yow bàyyi di ma wax bu ma neexee man politiquement ne yow bu la neexee yow bu la neexee yow y a énormément ah. ak kan genre mais bu la neexee nga teg qui Alpha Bay la woon. mo <laughs> jiite suñu cadre c'est un cadre etc., etc. mais malheureusement xam nga sénégalais yi. li ngeen xam de Khalifa Ababacar Sall. Khalifa sax dañu leen fi je vous le dis. Hein? peut-être sur le plan médiatique ngeen di wax. Ah, ah, mais sur le plan intellectuel ak sur le plan de de la management de l'État xam les affaires. sur le plan parcours. parcours parcours politique et professionnel quand même un Khalifa Ababacar Sall on le sait. au sein du PS on a énormément de personnalités yoo énormément de personnalités et fu ngeen le président Ousmane Tanordien ah oui Au nom d'une dimension depuis 2000 il a pu gagner mais <laughs> au sein du parti socialiste. vous on va se réunir. mais man êtes-vous satisfait le président Macky Sall. la gestion de l'État. on est très ah, satisfait bien sûr. même bu y qu'il des ait des la koy nest le Macky Sall ni socialisme de rawatina solidarité gi ñu gis ni ñu koy doxalee bu xoolee njàng meeg njàngale mii nga xam ne moom la ñu dënk. d' accord d' accord xam nga 2000. 2000 hmm. dama lay jox exemple rek. 2011 hmm. 12 bi fi Abdoulaye Wade di di jógee. système éducatif bi gisoon ngeen ni mu jaxasoo woon. Hmm. rawatina ministère de l'éducation nationale. Abdoulaye Wade jëloon n' importe qui pour mu mën a nekk enseignant mais tey dama ci école yi niveau d'enseignant, enseignant ya fa nekk loolu rek ndam la te on socialiste moo c'est la mémoire des gens quand tu dis actuellement euh, recruter n'importe qui si si à l'époque il suffisait juste ah, monsieur Diouf on y reviendra merci beaucoup euh, enseignant à licence en gestion euh, des entreprises ISCA coordonnateur de l'union nationale des enseignants socialistes Moi, beaucoup de membres du bureau politique du parti socialiste li ñu di waxtane jëm ci 2019 une candidature socialiste pour préparer la présidentielle 2019 24, donc l'OLO moy 2019 d'office amul euh, candidat nous japonais, euh, Père parti socialiste day APR. Ah, ah, ah. <laughs> on se retrouve tout de suite après cette page de pub. goji séché. Le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'antivieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf, Business Trading, rue 14 prolongée, Aslem 1 Solida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut. night. ça c'est le vieux cher 6 euh, moui euh, tourondo, euh, ken ci suñu cadre rifi ci DTV. TV Ah, donc muy jeune boo xamante ne moom it am na talent muy Cheikh Cheikh moo ngi nii moom moom moom mooy wane jamono jii nii ah, donc père ñu delluwaat sur scène ah, ñu demaat ci plateau bi ah ñu waxtaan encore une fois pour nga wax ñu rek jamono ji ci lan nga nekk ñi nga xamante ne bëgg nañu découvrir sa musique aussi fan lañ la war a mën a fekk parce que war nga mën di jouer un peu partout ci Dakar ci restaurant bar yi donc yooyu yëpp dinañ ci waxtaan léegi nii ah ak album bi ndax mën na sotti fii ak lu yàggul wala single ah loolu yëpp dinañ ci bëgg a waxtaan lekk yow léegi dégg voilà ñu dem actualité euh, musicale bi jot na euh, pour ñu wax leen euh, ñaari grosse pointure yi nga xamante ne ñoo ngi waajal kenn ki waajal na ba noppi sax waaye keneen ki mu ngi waajal c'est tout suite très bien on se reprend pour la deuxième partie dans même tu sais euh, di sargal bu baax euh, nuuru ndax euh, xadar bi ah ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bi ndax day bëgg rek li fi dem ca ca kanam ci lu baax di remercier l'équipe de production jiite ko par Ismaël muy Pays, ànd ak jigéen mu di Mami kon boog li ñuy def mooy fàttali leen ne Abdoulaye Ly mu ngi ànd ak ñun ci deuxième partie bi wara a waxtaane lu jëm ci astuce nee na tey nag astuce la indi ah tey dafa indi chronique indi actu mais indaale astuce astuce bi nag augmenter le RAM de son PC avec bien sûr une clé USB c'est possible oui parce que Abdoulaye euh, dina ci ñew léegi ni euh, borom euh, dina aussi ci actu bi muy tout est pop tout est pop le premier clip réalisé par des chats donc <laughs> tout est pop une toute nouvelle vidéo qui a été réalisée par des chats chats nag mooy muus hein, ay muus nak yu réalisé vidéo dafa mel Ismaël ce métier dafa mel ni mu ngi mo ngi mo ngi mu ngi dem <laughs> waaw waaw bu yóbboo nag nga jéem a anticiper jéem xool ah, ah xool ah, parce que xam naa ne yow moom booy def mannequinat moom euh, dina dox donc jël <laughs> beneen métier en attendant euh, bu ay muus moom demee bay réaliser ay vidéo euh, loolu jéggi na dayo ñu jeexal nag ak ci li nga xamante ne moom mooy la cryptomanie pour la première partie cryptomanie nga xamante ne defe naa ne TMTC bi mu commencé ba léegi ñuy wax cryptomanie ah, mais dégg naa ne sax Samuel Eto'o moom créé na sa propre cryptomonnaie même Akon waaj a créé bosam aussi aussi. Mm. Euh, euh, pour créer pour Afrique. Euh, très bien donc di Fateli, euh, chers téléspectateurs euh, Touré Kunda bien sûr nga avons un groupe mythique. Mm. un groupe emblématique nga avons ne jot nañu def lu bëree bëri ci musique surtout ci bitim réew ñu représenter le Sénégal dignement lu ci Abou ak Ismaël qui sont nos pères ñoom jamono après 10 ans d'absence sur la scène musicale nationale et même internationale génne nañu album bu bees waa Touré Kunda tout ko Lambi. Euh, golo lambi golo nag euh, ku juk daanu golo yaa ko moom donc mu nek lo xamantene ne euh, ñu ngi koy fateliku bu baax waye métaphore la parce que ñoom lambi golo bi li tax ñu wax ko moy dundu bi nga xamantene jot nañ ko dundu ci walum lamb hein donc ñu ngi citer ay Fodé Doussouba ñu ngi citer ay falay Baldé ñu ngi citer lu ci melni ñom ñoom Mbaye hein, ak ñoom Robert ñom ñëpp jot nañ len lim ci li nga xamantene mom moy mooy bu am solo bobu ñu tuddé ko lambi golo parce que tout simplement ñom màggee nañu ak li nga xamante moy culture bobu muy lamb nga xamante c'est un sport très prisé euh, fi euh, ci euh, Sénégal waye muy def ay ay ay ndan ndaanaan yu bari hein, di un facteur de développement donc Touré Kounda qui nous revient après dix ans d'absence sur la scène mais ñuy fàttali nek ñu won rek Sénégal ñuy won Sénégal ak un peu mm-hmm. partout def ay voyage hein, dem ci ay dëj ci ñoo xamante ne nañu wañé ko ñu dem séti leen parce que ñom liñ ñu doon ñëw Sénégal bëriwul donc très rapidement Lambigolo avec Trekunda 10 ans nous euh, dellu ñu un euh, au retrait mais aujourd'hui ñu indi un album euh, de beaucoup de titres parce que dañ ci retrouver ay salsa retrouvé mhm. rhythm and blues nous avons morceau yoo xamante ay Fatou Yo dañ ko joué waat juste pour dire que Touré nous sommes sénégalais pratiquement xamuñu leen mhm. même un album bi nga xamante ni moom la récemment mhm. Lamigoro presse internationale ñu ngi fait bind RFI def na ci numéro donc Africa beaucoup de chaînes internet exactement Touré Kunda ben affaire faire marqué marketing. moi mm. seul groupe bu au Sénégal bu am disque d'or mm. sans faire de duo mm. sans pour autant reprendre musique de loolu ñun ñep xam nañ ko Un compteur ça compte plus de 15 albums donc c'est un groupe bi nga xamante ñun sénégalais yi ko mais à l'international so leen quand tu parles de Touré Kunda ils connaissent bien la musique de Touré Kunda parce que dafa une musique bi nga xamante franchement parler bon ñu musique dafay. une diversité musicale. bon musique adoucir. on retrouve voilà et on retrouve l'africanité. Hein. exactement Touré Kunda moo donc ça fait plaisir. absolument tard très tard dans la nuit de ben. mettre la musique de Touré Kunda. ça genre nga xam ne informaticien j'ai ñu un programme programmer donc ben. chapeau à Touré Kunda donc allez. vraiment découvrir l'album qui est mm. téléchargeable. Mm. Donc, vu que nous, ils sont aussi à jour côté technologie, vous n'allez pas le regretter. Mm. C'est un groupe mythique qui fait la fierté

sénégalais bi ñu doon dañuy delluwaat ci euh, li nga xamante ne Sénégal xam na ko ci ay baax ci ay tradition yu mel noonu mm-hmm. donc euh, bu ñu ñëwee defaat lu mel nii lu ñu dégguleet lu ñu xam la lu ñu miin la donc loolu la ñuy indiwaat très bien Rekunda euh, rapidement un plaisir un plaisir vraiment de les de les revoir mm-hmm. parce que bon je pense qu'Ablaye wax na yëpp ak Pape mm-hmm. Ousmane xam nga bon Sénégal malheureusement euh, Pourquoi malheureusement non, parce que musique musique bi nga xamantene euh, balax bay bay yobbu euh, avec la jeune génération et finalement même la presse suit nga les animateurs suivent mhm. donc finalement ñom lañuy gi mhm. euh, xam nga pas bi par exemple boko indi lone tay amna na ñu bari ño xamantene xamuñu ko. et donc je te remercie frère. franchement waaw Touré Kunda tey nga indi. Mhm. yaa ci wax. malheureusement duñ ko waxee. duñ ko wax fépp. pourtant c'est un groupe qui a marqué le Sénégal. Mhm. Je pense que le disque d'or seulement a -hmm. Pas le Sénégal, hein, hein mais, mais, partout, mais, hein, sur l'international. Aujourd'hui, cet album, nous Mateliné, invité Nenki, euh, Koutoumeni, Carlos Santana. Oui. Ah, oui. oui. Une version, euh, version salsa, bo xamantene bëgg naa Maria, Waldugo. Ah, ah, gis nañ gis nañ gis nañ am chance di avion. Pour nga dugg avion, nga bëgg sélectionner Touré Kounda doo ko am. Mhm. C'est très rare. Mhm. Effectivement. C'est très rare. Le toog sa place ni jox la kii bi nga tak bo te ci Touré Kunda boo amo ci Touré Kunda. Ah. c'est très rare ça veut dire tout simplement que c'est un groupe international. absolument groupe le bo xamantene mm-hmm. marqué na sa sa mm-hmm. son époque. Mm-hmm. et continue à marquer. Euh, voilà cette très bien donc ci euh, ci album bu bees bobu noonu nga xamantene mom lañuy waxé parce que amna deuxième actualité bu mo bëgg yëkëti ñom ñoom tamit ñu ngi wax ci problématu euh, problématique walum pêche ah hein, walum.

signale que le leader de la génération consciente Moudi di Pape Diouf euh, mi nga xamante ne na album y' a pas longtemps Tout ko Enjoy ou ñu foofu ca teeru bi euh, ñu defoon benn séance d'écoute, écoute euh, ku ci nekk avion par rapport à morceau donc Pape Diouf moomu noonu jamono ji xam nañ ne ngi préparé li nga xamante un moment il le Bercy Bercy 2018 foofu ca hôtel Arena Tour boobu nga xamante ne jamono ji Pape Diouf mu ngi bitim réew di visiter li nga xamante un moom défi bi boobu mu parce qu'après l'empereur de la musique sénégalaise on a eu la star de la musique sénégalaise Mouy euh, walisek Seck Youssou Ndour Walisek ko euh, que nous saluons de euh, au passage hein, hein, hein. voilà donc Pape Diouf a Stadbi, 7 pour hall parce que le 13 octobre le jour rendez-vous à fansam jox au monde entier képp est pourquoi ne rek yaa koy Pape Diouf rendez-vous donc Moui, vidéo en exclusivité avec la complicité bien sûr de Séné People donc merci beaucoup à Ismaël euh, ci euh, actualité bu am solo boobu li ñuy def nag léegi léegi mooy euh, ànd ak moom kooku mooy kan kooku mooy suñu waa ji borom actu high tech ah l'homme de la technologie c'est tout de suite. augmenter le RAM de son euh, PC avec euh, une clé USB l'unité ñu dese xam nga ne nag bëriwul. professionnel rek. déjà damay tënk rek. ñaari actu bu nekk une minute le le premier partie juste intro la. Mm. t'inquiète pas on va gérer le temps. Mm. Mm. donc RAM. RAM ñuy utiliser ordinateur ak téléphone portable xam nañ ko mu nekk élément essentiel du fonctionnement. Même sax la ñuy rapidité souvent ordinateur ou wala téléphone portable. souvent nit day ñëw ordinateurs la sama ordinateur dafa yéex. nga vérifier fekk RAM bi 1 giga le 2 giga donc soit des dem mu jënd RAM bu bees def ci wala avec les téléphones il y' a pas de possibilité d'augmenter la RAM vu que RAM bi dañ ko incorporé incorporé. Hmm. RAM moy random access memory. Hmm. en anglais donc mom la la mémoire vive. moy mémoire bi nga actuellement yow sa ordinateur mi ngi tak stocke moy stocker information hmm. c'est à dire que koy denc. pourquoi ñu mémoire vive mom day fonctionner tant que ordinateur bi mi ngi dox donc soo un ordinateur bi dafay vidéo avez ak disque dur bi nga xamante moom dafay stocké information yi soo ko gis ko. Mhm. donc rempli en complicité avec processeur processeur ak disque dur bi ñoom ñooy joué ci vitesse ordinateur l'ordinateur. loolu tax ngay dégg ñu naan la téléphone yu mujj yi RAM 3 giga la 4 giga la ce qui fait nga vous a ubbi énormément de choses à la fois. Mhm. donc c'était juste pour souligner l'importance du RAM avant may wax augmentation RAM donc monteur yi fi nekk xam nañ RAM mhm. parce que bu ñu amul RAM bu ñuy sétane rendu vidéo yi nga xamanteni ñu ngi koy monter day da fay calé donc comment augmenter la RAM de son PC avec une clé USB ñu bari xamuñu ko mais amna possibilité nga jël ben clé USB 4 giga nga allouer ko sa RAM donc mhm. bu fekkoon sa ordinateur 4 giga la am nga mm. possibilité yokk ko 8 giga donc c'est tout à fait c'est très simple vidéo bi di daw bu ñu ko recommencer à zéro comme ça mooy suivre procédure ak D'accord. donc pour prendre sa clé USB ba pare da ngay dem démarrer mm. donc pour démarrer démarrer nous xam nañ mooy lan donc nga dem ordinateur mm. comme ni ñu koy gisee fii démarrer après nga dem ordinateur ordinateur Windows 7 et ak Windows yi nga xam ne mooy précédent yi ah. poste de travail lay nekk donc soo demee ordinateur da ngay dem propriété système mm-hmm donc soo mes propriétés système comme vous avez koy que fini. après da ngay des paramètres système avancé. boo des paramètres système avancé nga dem paramètres des performances. boo paramètres paramètres performance vous avez un bouton voilà paramètres système avancé là da ngay des paramètres. bi nga le le les performances. Mhm. donc soo ces paramètres des performances tu as une liste donc dans ngay liste boobu nga dem ci deuxième onglet bi encadré ni muy onglet avancé. d'accord donc boo demee onglet avancé aussi. Mhm. mu ngi la bindal RAM bi nga xam actuellement ordinateur Donc la am. donc modifier tu décosses la cage bi nekk ci kaw bi lay permettre de modifier affaire yi boo ko modifier dina la woon. Mhm. déjà clé USB bi su dee clé USB Nicolas la tudd da nga koy gis ci mu Nicolas ou Abdoulaye. donc taille personnalisée c'est-à-dire yow yaay personnalisé taille bi nga bëgg. Mhm. il faut savoir que maximum bi 4 giga la donc si amé clé bu 6 giga donc 4000 hmm. ngay 4 4000 mom moy 4000 mégabits ce qui équivaut à 4 giga bit donc vous défé lolu da ngay accepter bo accepter pour affaire bi dox il faut redémarrer cet ordinateur. Mhm. donc si toutefois tu redémarres ton ordinateur. Mhm. automatiquement mun nga vérifier ci ce propriété système là tu verras que la RAM a été augmentée. Mhm. donc vidéo bi mun ko sur YouTube mon gars, ko sur ma chaîne wala Facebook. vu que ça a été rapide. ok très bien donc augmenter le RAM de son PC avec une clé USB c'est une solution bi euh, li nga xamante indil donc nous avons ci euh, tout est pop le premier clip réalisé par des chats. Voilà, en fait, ça fait, c'est très drôle. Hmm. ça fait le buzz. ça fait le buzz. donc c'est la première fois xam nga tubaab dafa fonk muus. Hmm. donc am na a xamante ni dañuy dem sur internet rek. Hmm. di seetaan di seetaan ay muus ay vidéo ay muus. muus yi di def ay mbalak di def ni. donc ce gars là il s'appelle euh, Alain Chamfort donc c'est un artiste musicien il aime trop les chats Quand les chats réalisent la vidéo c'est pas comme ça ni nga doon takkinewee eh, Ismaïla mm. du chat bi mooy toog ci moniteur bi wala toog ci ordinateur bi du mm. l'idée extraordinaire qu'il a eu takkal muus yi ay mini caméra mhm. donc xam nga muus dafa sob waaw donc mais si nu muy duggee ci biir di génn donc loolu dafay tax gars yi ah, am angle yi ay angle yu extraordinaire donc moom instant yi nga xam ne gars yi ñu ngi nekk ci biir studio bi di enregistré son bi mhm. mu takkal sept muus mhm. ku ci nekk benn mini <laughs> caméra set muus de bu duggul fii nga gis leneen nga gis leneen de. gis ngeen comme nag set mu takale ay mini caméra. mousse di doxoon ci biir studio bi. des fois mousse bi dugg fo xam nit mënu fa dugg filmer. waaw ay ay prise de vue extraordinaire. Mm. après ils ont collecté l'ensemble de ces. vidéos vidéos monté ko def ko ben vidéo donc mom mm. la ñuy des voilà mu ngi nii comme ni koy wax des chats réalistes. Mm. donc ben premier vidéo clip pour dire que souvent il faut aller au delà des limites. Hein. Mm-hmm. absolument pour terminer, la la euh, hmm? crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie Crypto-monnaie, ça fait le buzz. Ça fait trois fois ñu koy annoncé fii di hmm. parce que crypto-monnaie dire. Pas amul hmm. problème vais introduire parce que j'ai fait exprès parce que lundi prochain nga ñëw la crypto-monnaie qu'est-ce laay wax crypto-monnaie La crypto-monnaie koy trois semaines Voilà. koy donc crypto-monnaie comme son nom l'indique c'est une monnaie cryptée la monnaie bi nga c'est une monnaie dématérialisée bu ñu dématérialisation Il n'y a pas de papier comme les autres papiers comme les autres monnaies. Monnaie bi ça fonctionne sur internet. grâce à ce qu'on appelle le blockchain. Lolu dina ci ñëwaat. actuellement nak ñu bari dañuy confondre quand on dit crypto-monnaie les gens pensent au bitcoin. bitcoin dafa bokk ci li nga xamante ci crypto-monnaie la bokk. mooy crypto-monnaie bi nga xam célèbre. donc ça a été créé en 1981. Chine comme le Japon. le bitcoin dañ ko fa téré dañ ko parce que amul législation bu koy permettre parce que xam nga lan mooy traçabilité daal lañ bëgg exactement alors que de bout en bout c'est les informaticiens exactement donc 1998 lañ ko créé Wendé des ko créé ben chinois ah. Donc prochainement, on va introduire. Donc je ne veux pas trop bouffer le temps. Donc, non, non, il n'y a pas de souci. Maintenant, on se donne rendez-vous lundi, lundi prochain, Inch'Allah. Bon, nous euh, carrément. Euh, voilà, crypto-monnaie. Euh, très bien. Cher 6, ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ci ànd bi ñu jotoon a ak yow mais tey doléance bi lan la lan ban message nga bëgg jàllale ñu war koo mën a jot bu nekkee tamit da ngay jouer des fois nga fësal fi ngay joué. oui damay message may laaj la mooy dafa parfois damay joué ci dama doon joué diaspora yi di joué ay yenn restaurant yi quoi. d'accord waaw waaw mais léegi waaw depuis koor ba léegi bi daal dafa xaw a wàññeeku. dafa taxaw waaw tey lay yëngu la. Sénégalais yi gis nañu la. Eh, di jaajëfal tamit sama mbokku séeréer yi waa waa Morola yi. Mm, mm. samay rakk yi ak sama mag yi ak mm. samay yëpp daal. d'accord boo limee dana juum ak li nga xam ni ñoo ñaar fubaloon chaque dimanche ñu ngi fubal euh, amitié. ku mel ni Assane Sène mooy sunu latéral gauche gauche Masik. ay ñoom Didi Diagne ay ñoom euh, Karim ay ñoom Cheikh Seck euh, rak mag Cheikh di colonel Seck colonel Sadio

sama commune Dier ah donc xam nga sérieux comme ni nga ko waxee dafa bëgg c'est un plaisir nuyu surtout également camarades yep mais message bi may joxe c'est vrai que temps bi jeex moy que ne ñun actuellement au sein du PS amna PS bu bess bu juddu ay jeunes yo xamné ne ñoo ngi ci parti bi di liggéey amna d'autres jeunes yo xamné ne xëy leen leader yo xamné ne yeen na yi duñ leen faral di tudd moo tax ngeen yaakaar ne potentiel boobu amul PS mais nag ñun li ñuy liggéey bu pare Sénégal yi dinañ xam te Sénégal gii mënul dem sans le parti socialiste mais dañoo toll ci contexte politique boo xam ne dafa laaj union boo xoolee fu mu ne nii ak pétrole bii ngay gis ak autre chose am na ay lobby yoo xam ne dañoo jóg pour ngemb ay nit pour déstabiliser pays bi loolu jar na rek tax PS manko ak Macky Sall pour que ñu joxaat ko réew mi pour ñu sàmm réew mi parce que ñooñu bu ñu leen bàyyeek ñoom seen yéene fi ñu nar a jëmee réew mi ah waxuma ne xam naa daal du baax. donc maa ngi leen di sant également Nicolas ci invitation bi. vraiment di sant waa Ousmane ah di nuyu le grand journaliste sportif ñoo ngi leen di suivre ak euh, monsieur Li nuyu sama papa te di ko ñaanal bu baax. xam naa après incha allah. donc c' est un grand plaisir. très bien merci beaucoup monsieur euh, Cory Diouf enseignant licence en gestion des entreprises ISCA muy coordonnateur de l' union nationale des enseignants socialistes euh, bokk ci membre du bureau politique bu parti socialiste mu nekkoon invité wu papa Ousmane Cissé ngir ñu waxtaanee woon. 2019 une candidature socialiste pour préparer la présidentielle de 2019 <laughs> Bonsoir, on vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, même heure sur les antennes de la DTV. Vivez toujours une partie de cette magie à travers le rendez-vous incontournable qui se déroule euh, du lundi au vendredi, 17h, 19h. les programme du di du Way sur la magie de toutes les télévisions euh, sénégalaises. Bonsoir et à demain, Inch'Allah. l'évolution de la technologie et leur exploitation sur Internet. L'image en rapport avec le sens général de l'action. La réputation en lien avec le potentiel viral d'un événement. La notoriété compte tenu du message perçu la fréquentation des supports qu'il véhicule. Aujourd'hui mise en place au profit des médias, de la télévision et des téléspectateurs pour agir efficacement et consacrer une attention particulière en sa gestion destinée à toute personnalité confondue. Ils font le buzz, saison 2. La firme chinoise StarTimes nourrit-elle l'ambition de se lancer dans la commercialisation de bouquets TNT au Sénégal En tout cas, l'information commence à faire le tour des réseaux sociaux. Une décision mal accueillie par le groupe Scaf Telecom, selon le chef du projet TNT. Cette intention, si elle est concrétisée, peut engendrer d'énormes difficultés. elle poserait trois problèmes graves. Le problème d'illégalité non-respect de la Convention, le problème de fiabilité de l'État du Sénégal, parce qu'après un engagement pris, vous passez outre, et le problème de manque de patriotisme, parce qu'au moment où des Sénégalais ont investi leurs milliards pour aider l'État, l'État en retour ne peut pas agir autrement que être aussi patriote vis-à-vis de ses digne À la question de savoir si Escaf Télécom détient le monopole de la commercialisation des bouquets TNT au Sénégal, le chef du projet apporte des éclaircissements. Cette convention-là,